israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Sud FM seen rajo seen jotaay mu tuddee alkitab ngeen koy am yoor yoor aju mu jot ci waxtu wi dellu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaj al imam al oustaz Alioune Mbaye seen mbokk alaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ sant sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër ngi jaajëfal suñu caméraman Mansour di jaajëfal suñu technicien di Alassane Thion jéggulu soxna yi di jéggulu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër di nuyu mboolem koo xam ne que yaa ngi ñuy déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew région yeeg département yeeg arrondissement yi ak local yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau itam di ànd ak ñun jotaay bi ñi nekk ci yoon wi di xëy di ànd ak ñun jotaay bi ñu nekk ci station yi di ànd ak ñun jotaay fay mën a nekk rek ñu ngi naan la asalaamualeykum jaajëfal yi nga xam ne jamono ji ñu nekk tam ñoom tam ña nga ca télévision ya ña nga ca rajo yi di jàngale lu mel ni li ñu jàngale mbaa sax mën ngoo jëkk gën koo jàkk asalaamaaleykum yéen itam techniciens yi nga xam ne ñoom tam ñu ngi ci rajo ñu ngi ci télé yi di def nii Alassane Thioune di def yéen itam asalaamaaleykum sëriñi daara yeeg donga daara yeeg e, tabarkalla yaayi daara yi yéen itam asalaamaaleykum su defem seen rajo bu jataay bi tàmbalee bu ngeen demee ci youtube fekk nu fa bu ngeen demee ci facebook fekk nu fa ay itam yeneen yi nga xam ne mi ngi ci biir biir sénégal xam ngeen moom fréquence bu nekk rek tabarakallahu lom jaraa wax na leen nuñ fay jàppee su defem seen rajo tabaarakallahu kon nag bu dee ci Dakar moom 98.5 ngeen di def tabaarakallahu ci geen ñuy amee ca euh, Tambacounda tam noonu ngeen ñuy amee foofu tabaarakallahu lu waaye sori sori ñu nga xam ne ñoo nekk Brésil ñu nekk Amérique ñu nekk Haute-Volta ñu nekk Côte d'Ivoire fu waaye mën a nekk rek loo sori sori rek xamal ne picc nga ca kaw xel maa nga ci suuf ñoo leen di wax asalaamualeykum. tabaarkallaahu xaadim moo yëkk ci noonu ilaa Touba tabaarkalla di yëkkati mawaay bu ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal barkeeg tawfiix sutura ak teraanga jeeg ji nekk ci yoonu marché jëm marché di di di duggi tabaarkallaahu euh, bu leen fàtte pochette yeeg ñoom seen yooyu ndax ndaw ko ndaa yaa ngi ci yoon wi te itam ngàbb sa pochette ñu far àbb ko ci yoon wi dana tax la ngay togg du ñor wala bokk du jag te itam bàyyi xel ci table table yooyu nga xam ne mooy yeb sa jëkkër tabarakallahu day ne ci mbedd yeeg ñoom seen yooyu en tout cas détails yi guru yi daf koo gën a yaatu Oustaz Alioune asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. tabaarakallaahu ñu bàyyi la nga nuyoonte ngay déglu yi. tabaarakallaahu ñu fay la nuyoo nuyu la ziar la bala ak balu la ak nuyoo réew meeg bitim réew beral nuyoo sama cousin bi sëñ Mbacke Sylla ñaan nuyoo bi yàlla na ko fekk ci jàmm ak sago. Xaaji Mbacke asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ñu bàyyi la nga nuyoonte ngay déglu. jërëjëf Oustaz ñoo ngi lay fay nuyoo di la nuyu. di la siyaare ci àjjuma ji di jégalu ci retard bi di fay nuyoo tey nuyu imaam alxaaji Oustaz Alioune Mbaye borom Pikine ak Dalifor ak Kër Massar. borom Pikine ak Dalifor ak Kër Massar nu jotaay bi tëddee. incha allah nañ ko daan defee nañ ko fas yéene defee def ko jël xaaj bu njëkk bi di ñu suñu laaj nga indi sa jot dañu ubbi téléphone bi wala balaa boobu mu fa yabal rek ñu déglu situation du jour ci ci corona bi bu ñu ci jógee ubbi bi ñu bàyyi mbokk ñu seen laaj seen commentaire te gàttal ko bu demee ba déglu seen teg fanweeri semaine nag ñëw. su boobaa ku nekk ci biir réew mi day 98 98. waaw xam naa day del si rek kon euh, jot naa def nuyoo beeg ñoom seen yooyu. waaw dama ñëw sa Alioune rek na ko bisimilah. fadal mashkuran fa jazakallahu xayra. macha allah baarakallah baarakallah ñu yi comme ko daan defee rek. Hmm. Euh, def tournée bi macha allah def tournée économie. ci àdduna bi yëpp kon nag kontaan nañu bu baax a baax. alhamdulilah. macha allah fekk nuyu waaye daa mel ne nuyu nga borom. Euh, def naa ko dama ko daan defee. Hmm. alhamdulilah <laughs> mbindiloo ko. <laughs> jaay kër ginaar yi bi mu ngi. <laughs> barakalaa sëñ Mbacke ba daal tey li ma xalaat doon ñu waxtaane ko mhm. mooy euh, ñu waxtaanee politique politique waaw ndax euh, li naan li kulli maqaamin maqaal mhm. barab bu nekk lañ fa war a wax weer wu nekk luñ fa war a wax at mu ne lañ fa war a wax ndeysaan booy topp actualité réew mi ci jamono ñu ngi waajal élection locale yi mhm. parti yeeg coalition coalition yeeg mouvement yeeg fu ci ne yaa ngi am foo jëm di di dank fanaan ak daas fanaan di fanaan ak daas fanaan loolu laaj nag eh, xalaatu daara ji mm-hmm. ima oustaz luy local ak naka la ñuy waxoo jëm ci local jërëjëf eh, ñoo ngi lay jaajëfal di jaajëfal xaaj Mbàkke di jaajëfal suñu caméraman nag suñu technicien jërëjëf eh, baatu local mooy élection yoo xam ne du législatif mm. du présidentiel local bi mooy tey ñu ne Derklé ñu ne ab local la ñu ne Diamaguène ñu ne ab local la ñu ne Mbacké ñu ne ab local la Diourbel ñu ne local sàngam local sàngam donc loolu lañ tuddee local nga xam ne moom du am ab président ab maire lay am bu ne ca yi ba walla ca commune ba loolu lañ tuddee local Euh, wate ko nag du wuute naag wate présidentielle waaye sunu bii nag dafa am lu ci am lool buñ la ci gañee boo demee ca bee mooy tuut ñu gañe la moo tax gaa yi di ko waajal ni nga ko waxee ni ko fanaanal ak euh, di daas fanaanal su ko defee kenn ku ne local bu ne day am ko ne man bëgg naa local bi mm-hmm. Mm-hmm. loolu nag parti yi niñ toll xam nga ñetti téeméeri parti fi nekk. Mhm. ak lu topp. am na bu juddu barki démb. Mhm. bu jotagu récépissé am. waaw ak sunu bos ñun ñett. waaw incha allah boo xam ne bii danañ dugal ñun tam suñuy kayit. Mhm. dëgg la dëgg la du léegi nag su boobaa. parti bu ne da naan da am ku ne bëgg naa local bi. suñu coalition nag léegi coalition bi ci boppam. ñooy tànn kenn ne ko dañu dañu la bëggal local bi. waaw coalition bi. ñooy tànn kenn ne ko dañu laa bëggal local bi. Hmm. ñoom dañu natt seeni kook ba xam ne local bii moom. ku ko xëccoog sëñ Mbàkke. mu daaneel la. ñu ne kon sëñ yaa tëdd liste bi. def ko hmm. ñu dem te seet daane xam ne local bi moom fi xëccoog Saalum Mbaye mu daaneel la ñu ne ko local bi yow la. Hmm. donc loolu ku ci ne ci penc mi xam nañ bu baax a baax local bi nga xam ni jàpp nañ ne. buñ la fa defoon tête de liste nga jàll loolu lañu ñu tuddee kon ay local Oustaz Alioune euh, nu jëm ci gars yi du ko waajal aka danga ko fanaanal jërëjëf tubaarkala <laughs> jërëjëf suba la mbàkk bala ngaa jël ci euh, Oustaz dégg naa nag parti bu ne tur be ah, lu ñu lu nekk abrégé nañ ko mhm. dégg naa ci tur bu nekk waaye comme mbirum local la mhm. euh, imaam yi ustaas yi niti diine yi mhm. ñoom dañuy fas yéene bokk ci parti rek walla diggaguma daal euh, benn responsable bu imam bu jóg nii damay woote. waaw xam ne xam nga ñoom seen façon imam yi. Hmm. seen façon politique. Hmm. xaw na wuuteeg façon politique gu gars yi. Hmm. waaye local yee weesu am na ci local yoo xam ne ay ilimaanu ko gañe woon. am na ci yoo xam ne sax ca buñ ko gañewutit dem nañ bu dugg ca conseiller. waaye nag ñoom duñ teel a dank fanaanal duñ yuuxu yuuxu yenn yi ndax xam nañ ñoom lii seen la lastaalim bi mu musaytir moo leen ko jàngal waaye ñu ngi ci biir man xam naa ci ñoo xam ne buñ nekkute de liste ña nga ca liste ya waaw moom xam naa ko ci macha allah mën naa ne la diw sàngam ci ci ci ci ci conseil la bokk hmm. waaw diw sàngam ci conseil la bokk hmm. xamaguma ci nag imaam sàngam hmm. mooy mooy mooy maire commune wala yooyu xamaguma ko ci waaw waaye daal ñu ngi ci biir yëf yi waaw ça ira <laughs> baax sëñ Mbacke waaw kay am na solo oustaz eh, xam naa politique gu Sénégal moom ci boppam itam oustaz est-ce ce que askan wi comprendre nañ eh, suñu façon wu politique ñun daa mel ni politiciens yi rek ñoo comprendre te ci seen biir waaw xam nga noonu dana am benn làkk woo xam ne du sunu làkk ci la ñuy waxtaane li ci réew mi mm-hmm. moo tax yu bari mën nañ ko waxtaane te nu duñ ko xam waaw dëgg la de nga xam ne même ñoom bu ñu ci ci aw doxalin parce que ñàkk jubóo ci doxalin li ma ciy dégg mooy moo tax parti yi bari mm-hmm. dama yaakaar ne bu du woon loolu xaw tuuti kon mën nañoo doon benn parti mm-hmm. mais kenn ku nekk am na loo gisut ci parti bi ba sos sa parti mm-hmm. waaye buñ dëgmalee yu mel nii ñu ne élection local la ginnaaw benn parti nga yor mënoo gagné local yëpp kon dañuy dañuy def coalition kenn ku nekk mën a indi lim am ñu ànd dajale nga xam ne maanaam wuti maire yi ba jaral na leen booloo même su fekkente ne kenn gisut sa bopp ci sa morom xam nga gëm maanaam tëral idéologie ba noppi gëm ko moo jafe waaw tëral dara ba noppi gëm ko nga xam ne ko la ca fekk yaa ngi ca ko la ci fekkut yaa ca loolu moo xaw a jafe ndax jamono moo koy soppi léeg-léeg ba nga xam ne léegi nit ki mën naa bàyyi moom ni ni mu xalaate woon ñëw fekk si fii ndax ndax am dara léeg-léeg loolu loolu ñu ko def pénc bi waaye bu njëkk da daan am sa sa sa benn éditorial boo xam ne bii ci wàllu politique doo ko wàcc soo amee dara doo ko wàcc. Mm-hmm. ndax da gëm ne danga ma sa am dara. Mm-hmm. léegi nag loolu dafa xaw a soppeeku léegi. waaw moo taxit de tey tey politiciens yi ñoom lu coow li bari bari bari bari. Mm. am na loolu xam ne ñoom ñoo ko bokk. Mm-hmm. loolu ñu bokk nag ñoom bu ñuy xëccoo léeg-léeg duñ ko laal. fa lañ koy bàyyi tey coow nag. ak mbëkkantee ka coow ba nga xam ne moo tax léeg léeg léeg dugg si ci coalition bi. du jafe lool. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaye am na koo xam ne ki tey boo ko waxoon ci coalition bi wax du ma ñëw. Mm-hmm. li ma yor doy na ma. wala naa naa dem lu ma am jël. waaw. jërëjëf ci sa laaj ba am solo na solo de xam nga Oustaz Mbaye ci daara ja léeg-léeg ay donga daan daan daan daan yelwaan yi ŋàbbu génn mbuus ne maa yow ñooy dem lu ñu am bokk mhm. nga xam ne eh, yow doo ŋàbbu ma ŋàbbu dañuy dañuy yor génn mbuus rek lu ñu am bokk bu ñu ñëwee séddoo mhm. léeg-léeg ci politique bi day toll foo xam ne kon Oustaz da ngay gis ñu bokk toog ci taabal ñoo xam ne ñii moom waruñu woon a mën a maanaam ku la woon danañ bokk toog di déggoo ci ay mbir doo ko gëm mhm. léegi ñoom lu ñu am bokk la ñuy def wala wala Sénégal lañ bëgg a defar ah, ñoroon mooy bëgg defar Sénégal. bëgg a defar Sénégal waaye lu ñu am bokk nag ma nga ca. parce que. Mhm. bu fekkoon mbir mi programme la. ngay folo ci programme. di exécuter programme. kon defar penc mi tax. waaye su fekkee du ci programme. waaw li ngay doxal mooy. naa yéeg. maa am baas maa su ma ñamee. ñamal leen. moo mhm. tax boo ñamee tuuti lu war lu war genn wàllu at bu la tëbee ñu tàmbal ne laa li nga ñam kat doy na. Mm-hmm. bàyyil ñun tam lu ñam. parce que mm-hmm. ñamaloonu. Mm-hmm. waaw waaw loolu lay yëf yi. dëgg la est-ce que. <laughs> doy waar la. <laughs> doy na waar moom suñu réew. mais su fekkoon lépp dañ ko doon làkk ci sunu làkk yi nit ñi daañ xam kon. qu'est-ce qui se passe. waaw daañ xam lu xew. ndeysaan daañ xam fu nu gars yi bëgg a jëlee mhm. daañ xam fu nu gars yi bëgg a jëme dëgg la waaw dëgg la su fekkee lépp ci tubaab lañ koy làkk mhm. bon man naa am ñun liñ ci xam du bari maag yow ak Oustaz Mbaye Oustaz mhm. sax moo ñu tere ndax dégg naa léeg-léeg mu moom dégg na tubaab moom moom dégg na tubaab <laughs> <laughs> moom dégg na tubaab waaw moom dégg na tubaab mais Oustaz ci ci ci foto mbaa fi nga daanele waaw euh, mi léegi ginnaaw li nga wax nii yëpp effectivement léeg-léeg ma gis koo xamante ni da daan gite ŋaas ak nit ba nga defee ni kii dootu laalanteeg moom. waaye nga des tuuti rek nga séeréer ñu bokk di naanandoo café. <laughs> jàmm ji ni ñooy ma ni ah bu defee nag foofu laaj bi ma fay laaj mooy kan mooy électeur ak askan wi ban taxaw lañu war a taxaw vis à vis ak ak ak ak suñu candidat yi. waaw xam nga mboolem politiciens yi ci réew mi. Hmm. nangam pour cent yi. Hmm. ñoo bokk benn école. Hmm. bokk benn professeur. am na ci ñu bokkoon table banc. ba niñ àgg ci njàng sàngam la ca tege mooy rëdd yi nga xam ne moom la tubaab bi dina lii mooy politique la ña ca wuute bariwut ña ca wuute bariwut lañ leen wax ne mooy noonu la ñu gérer cité bi ka leen ko wax fañ ko teg teguñ fa ñu bari donc loolu lu leen mën di wutale loolu moom duñ ci duñ ci duñ ci ju ju juyoo duñ ci wutale mm-hmm. moo tax yàgg-yàgg mën na nañ la kaay nga daal di ñëw parce que <laughs> benn yëfër bi la <laughs> du dëgg waaw léegi électeur nag mhm. électeur waaw mooy ku am fukki at ak juróom-ñett jëm kaw mhm. fexe ba am carte d'identité mhm. am carte électeur fal ak fol li yitteel la nga fexe bokk ci ahlul xalli wala eqd tey fal ak fol li yitteel la responsabilité la waaw waaw parce folli googu du sunna farata farata la dëgg la. Ah, am benn dem bindu ci électeurs yi ak am carte électeur di wate farata la. du fara du du sunna du luñ sopp. Hmm. farata la. ñi naan du ma wate ji nag ndax ñii ñëpp a yem affaire yi. nangam nangam jéppi politiciens yi ba faf bañ a wate. boo ne ñëpp a yem. am na koo tooñ ci ñoom. Hmm. ak man sax yëmut. Hmm. waxuma la ak mbaax. dëgg la waaw daa nga ko wax. ndax xam nga ne. <laughs> mawisa xasana waaw wa jaadilhum billati hiya ahsan ko ahsan moo moo mm-hmm. moo moo xasana waaw xasan mm-hmm. ak ahsan du ñu benn mm-hmm. am déet loolu moo waral nit polo ni ñu koy waxeeti élection yi bindu oh, ci alxuraan am carte dem loolu day farata xam nga lu ko nekk fa def farata wala taktumu shahada dañ laa laaj seede ne la kaay seede ñun ñett ñii di xëccoo kan moo ci kan moo ci gën kan moo ci gën wax ñu yow ki gën ci yow très bien loolu nag tuutiwut. Hmm, kon kii wate ji day dem di seede ji. day dem di seede ji man oustaz bu ñëpp bokkee même sëriñ bokk même système bokk ñoom ñëpp yow mi nga xamante ne nag yaay tànni. waaw su fekk su boobaa yow miy tànni. Hmm. yaay tànn ki ci tane. Hmm. même ñoom ñëpp buñ bokkee sax. génne fu bon am na ko tane boo fekkee ku bon <laughs> nga yaakaar ne moo tax waaw boo fekkee ku bon. ku bon ak ku bon a bon. ak ku bon a bon a bon. koy tànn. ku bon jeex na genn mbon gii gën bona bona bon waaw ginnaaw alxuraan ne wala taktumu shahaada daf caa teg waman yaktumha fa innahu aathimun qalbu allahu akbar bu leen nëbb seede bu ñu nee diw ak diw mii ku ci tane amul fitu ni di watane mhm. waaw comme moo tane ci yow wax ko te dem toog rek te bañ nañ ko ba ci burqo lañ la wutal boo koy waxee voilà très <laughs> waxoo ko publiquement da ngay dem ci burqo wax ko fa ñibbi <laughs> waaw très bien da ngay dem ci burqo wax ko fa dem ñibbi waaw ndax li ñuy bañ aw tooj penc lañ ci waaw dañuy am solo la waaw ah, eh, da ma fàttali waxu sëñ Babacar Si ndeysaan ñaari xob rek ñoo am waaw xob bi sa gémmiñ gi ak bi sa poche mhm. ndeysaan ci élection yi léegi nag eh, ci élection yi mhm. alxuraan ne waman ku nëbb seede googu. waaw fay nu aasimun xalbu. Mm. maanaam xolam bàkkaar na. aasimun xalbu mooy waaw. waaw xolam bàkkaar na. Mm. lan mooy xolam bàkkaar na. mooy foo fekk werante wi. Mm. mooy ka wati jiwut. la ñooy toj foo fekk werante wi. mooy ka amul carte. Mm-hmm. <laughs> foo fekk werante bi. Mm-hmm. mooy kam jaralul dox. dëgg la coow lu ci ca pintub teen ba ñu amul baaga. <laughs> <laughs> ñu amul baaga. pour bañ yëg yëpp ñooñu. dëgg la de. wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbuh ba tax sëñ Babacar ne ginnaaw da nga am ñaari xob wi ci gémmiñ gi wi ci poos bi mm. demal nga wate ji wàcce poos ba te denc wi ci gémmiñ gi waaw mm-hmm. jamono ñooy jubee ci. est-ce que am solo la. <laughs> macha allah mm-hmm. ah, am na solo am na solo oustaz. léegi nag oustaz ci wàllu ci wàllu campagne. Mm. campagne eh, léegi nag la ñu campagne. waaw campagne ñett la. Mm-hmm. kii campagne pour nekk député. kii campagne pour nekk président. ak kii campagne pour nekk maire local. Mm-hmm. wala jiite local. Mm-hmm. kon ñett lañ. dëgg la kii campagne pour nekk député. Mm-hmm. dafa war a woon nit ñi ne leen man su ma demee assemblée danaa dëpp danaa dippi. daa koy. seeni seeni soxla danaa ko fa yóbbu. <laughs> waaw di dëpp ak a dippi di dëpp di dippi. <laughs> waaw waaye ak yow dëppoo dippi woo. dëppoo dippi woo nga toog ñu lay dëpp ak a dippi. fa la nelaw. <laughs> lu sëñ Fall waxoon kii sama waaw <laughs> ndeysaan ca député am waaw ca député am mm-hmm. kii laa bëgg mu nekk ci assemblée député Senghor na ko kii mënut a jàng mu ne ko ah ah kay def ko mu nekk député Senghor li yàqu ànd mooy mm. di digalees man waaw maanaam di santaan luñ mënut ak gàntu lees man ak gàntu lees man <laughs> mm. Senghor nag mënut nekk mu ne ko waaw waaye la ñuy def assemblée mën na ko mm-hmm. Senghor na ko ah mu ne ko waaw daal ne sëñ ba tàccul mu tàccu mu ne ko mu ngoog ah waaw. <laughs> mën na ko ci assemblée bi yàgg naa mel ni mel kon jàng mu doy waar la jàng mu rëy ngi noonu assemblée yàgg naa mel ni mel am na ñoo xam ne moom tàcc dong la liggéey <laughs> <laughs> mooy ki bëgg a doonub député mooy bëgg a doonub moom loolu mm. lay campagne mm. su ngeen ma falee su ma demee danaa dëpp danaa jippi mm-hmm. su dëppkat dippi rek xeet bi yëg ko dëgg la bu dëpp dippiwut nag xeet bi jëppi ko allahu ah, am na député yoo xam parce que bu dëpp dippiwut rek am na député yoo xam ne kenn leen fi mu ne boo ah ne mësta dëpp mësta dippi jeex na allahu akbar <laughs> moom daal bi lay campagne <laughs> moom boobu <laughs> nga xam ne local bi lay campagnal moom day wax ne lu génn ci local bi ci koom-koom danaa ko delloo local bi ak ñu local bi te gis nga suñu local yi sëñ Mbacke. Mhm. moo fi ëpp xaalis. waaw maanaam ab local lu mu kii kii am na lu ko mën a yor. maa la ko xale. Mhm. nun nun la yàlla def àdduna. Mhm. waaw waaw waaw wax nga dëgg. Ah? nga suñu réew mii. sëñ euh, Oustaz Aliou. réew yëpp a yem. nañuy def lañ lañ def ñu. dëgg la tigi. gis nga oto buy daw bu ne. daa am loo war a fay. war koo fay ci bu dee taxi foo war taxaw da nga war a fay mhm. Mhm. da ngaa war a fay tëli bi mhm. da ngaa war a fay nangam yooyu fay fayaan yooyu mooy defar tëli dëgg la dëgg la waaw su lu ci ruus dem ci tëli bi suñ digganteeg suñ digganteeg euh, Mbàkke Bawol du nekk benn benn benn. waaw rek bañ bañ amee indépendance ba léegi ndaw wi. waaw rëdd wax nañu oto yëpp ci lañu daje fu ñaari oto yu mag dajee. bi ñuy daje bu fekkee kii droitam paxañ fi. kii góosam paxang fi buñ ko moytoo rek daje bu kii moytoo kii moytoo rek ñu daje <laughs> allahu akbar dëgg la mbaa kenn taxaw dëgg la parce que tali <laughs> tali léeg-léeg nit dana moytu pax mm-hmm. neen naa ñëw ci kaw tali bi mm-hmm. su fekkee kee ngay moytu pax moom mm-hmm. ne naa ñëw ci kaw bi dëgg la ci digg tali bi ngeen daje dëgg la parce que as tali la dëgg la te tali yi daa ànd ak i pax ñun suñuy tëlee yoon woowu nga wax ay pax yi neen la loolu kon ki ci local bi loolu lay wax <laughs> bu ngeen ma falee koom-koom mi ni ci local bi danaa ko delloo local bi ak ñuñ local bi. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Mbacke bala ngay jëf foofu. kooku de war naa am xam-xam. mu des kii ne président waaw waaw kii ne président. <laughs> waaw kooku ku makkee mag. kooku <laughs> ku mooy <laughs> kooku mooy ki mag mm-hmm. su ngeen ma dénkee. danaa rafetal. danaa rafetal. su ngeen ma dénkee. danaa rafetal. te it moom day waat. waaw kooku moom moo ci gën a garaawle. moom day waat. Mm. suñu problème nag mooy ñun dañ naan waat naa ko. Mm. <laughs> ah waat gi loolu la. waat naa ko bàyyi espace waaw nga xam ba léegi waataguñ sax. bàyyi bàyyi espace sax. je le jure. waat naa ko. <laughs> ah loolu lay tekki. boo demee amee duñ def noonu. déedéet dañuy teg dara teg ci seen loxo. waaw la nga gëm. la nga gëm. Mm-hmm. daal di waat naa ko. Mm-hmm. gis nga waat googu boo ko defee. Mm. soo doxaleem at te doxaloo li ngay doxal mhm. suñu borom commencé laa xeex ca kaamil ba nga waate woon mhm. waaw waaye nag waat naa ko rek waat mhm. nga xam ne ngiñ li wala boog waat gi engagement la bu nit kiy jël dolli ci engagement bi mu jëloon bi muy laaj eh, ngir la yoon waaw mooy da nga ne woon su ngeen ma falee ma sàmmal leen yëf yi ñu ne la ah, ne waat naa ko waat naa ko ci téere bii waaw ñu ne ay ca nga doxal allahu akbar waaye fi ne fekk daan waat na def sa loxo rek. daa tiim benn benn texte. waaw lii texte ba mu jeexal rek nga agsi ci. waat naa ko. daal ne waat naa ko. nga xam ko defee àttekat yi daal di ñëw takkal la affaire bi. gàll la ko doon seen nga doxal yi ngay doxal. dëgg la moo tax yàlla ñoo bari caaxaan rek. waaw ñun nag ñun nag oustaz dañuy boo ko seetloo ba ci biir dañuy caaxaan dañuy théâtre. Ah, bien sûr waaw ah, parce que ah, yii itam kenn xamut lan la daal. <laughs> li Lamine Ndiaye muy théâtre. la daal. nga xam ne waa ji moom man ab ma jox texte bi dama koy liir ba mu jeex ba agsi na ko la faloon. waaw texte bi ngay liir. dëgg la de damaa yaakaar kon oustaz waa daa waroon ñëw kon wax lim nar a def lenn li bu tënk ko bu noppee waat waat gu wër ne lii du ma li ma wax nii duma ci dellu gi ginnaaw. Ah, xam nga moonu moonu moonu neexoon ci maître waat ndeysaan mhm. eh, far rek. waaw ndeysaan ndeysaan waatam googu. waaw non kenn dutu ko waat. dëgg la. xumboon na neexoon na sénégalais am am yaakaar n'y a pas de secret oui il faut travailler oh. toujours travailler oui. encore travailler et beaucoup et beaucoup nag man looloo ma tiitloo daal ndax li nga wax nga ne booba yaakaar yëpp dekki waaye oustaz daa mel ne ku yëg ba ci kaw a kaw rek ca biir rek am na fa lu nekk loo xam ne daa mel day jàpp ci ndigi gaa yi ba ba liñ ba daal bu ñu dugg ni ñuy mel duñ ñu mel bu ñu duggee. waaw buur dag yaa la ju xóot ju ay dag ay. wallaahu wax la ju xóot. Mhm. waaw mhm. waaw gannaaw buur ba day dem te boo moytu dag fa nekkoon a fa nekkaat. Mhm. <laughs> buur bu ñu. Ah, ah, ah, parce que sensé système dana jafe. xam nga li ngay li ngay li Oustaz di dëgg dëgg dëgg. lettre boo mos bind. Mhm. boo demee sax eggul ci moom. Mhm. am na ñu capturé lettre yi dina tontu ci turam. Mhm. mais loolu itam système bee moo ñoo noonu. Ah, moo tax buur ah, ay <laughs> <laughs> gannaaw am na kuñ dooleele noonu kay pexe amut. Euh, am na solo de. Euh, dégg naa dégg naa Sonko nee na système bi. xaw ma ne fu ci tolluwaay. fu mu bi. waaw d'accord sax ci ci wàllu local yi ñett yi nga ñu wax yëpp comme dañu toll ci local yi. Euh, caution bi. est-ce que jekk nga ko seerul wala yomb na wala quinze millions waaw xam nga question moom daanaka jarutoon weranteeka euh, xëccoo su fekkee wóolu nga sa bopp buñ ne la boo demee campagne boo amee deux pour cent ci électeurs yi wala trois pour cent am na xam defe naa cinq lañu wax waaw boo amee cinq pour cent dañ lay delloo li nga joxe woon mm-hmm. ah, boo ñemee kay defal rek te dem. jeex na jaww man bu la wóoree ni duñ la ko delloo xam nga léegi boo gisee li wax léegi rek ci commencement bi coow la fi nu teen ba gaa baag moo tax coalition yi bari rek am parti te yow coalition doo ko joxe mosoo bokk ci yenn élection yoo demal sa bopp yow sa turu parti bi daal loo loolay boor la rek dem dem wàll yaani la ñeent fukki parti juróom-ñaar dañ nekk ci benn coalition te mënuñoo am te mënuñoo gagné ab commune moom loolu moom gàcce ah ma di tubaarkàlla loolu rek la de léegi daal mbir mi moom lébalul kenn dara. <laughs> mu ngi fi rek. Mbacke ba nga jël oustaz. daaw euh, nga wax ci wàllu euh, maire moo gën a naqaree nekk. parce que présidentielle sax mën nga am ay pax ak ay lu luq-luqal. Mhm. mais oustaz bu fekkee da nga da nga nekk ci benn commune jiite ko. Mhm. ressources yi war a am ci commune bi bariwul. Mhm. marché yi nga yaakaar war a borom taabalee yeeg jaaykatu njëkk yi ñeent fukki dërëm nga cay dagg nangam nangam. budget bi du la féete fenn léegi nag nga bëgg nag ku am ngénte yaakaar la ku am dëj yaakaar la. gàmmu yeeg conférence yëpp ñu yaakaar la mairie tam amoo loo leen war a wax. <laughs> Euh, loolu de waxoon nañ ko ba ñuy def conférence ca defe naa mairie waxi naan maa ko saas bak si la. dëgg maire ba def na ñokket ni ma dimbale ma rek waxaat ko. <laughs> waaw waaw dëgg la de keroog wokkal nga ko fu xaset <laughs> ko da ko réglé problème. dégg nga. Hmm. xam nga commune bi. Hmm. suñ ma joxoon tey commune Derklé mm-hmm. eh, Cheikh Gueye bu ma mere damay damay damay misaal rek waaw waaw ma joxoon commune Derklé waaw mbaa nga waaw balaa Cheikh Gueye ne sa waaye sama adversaire waaye <laughs> xëy bu ñu dara de bépp magasin bu nekk ci commune bi yëpp mm-hmm. daa am looy fay mm-hmm. am looy fay képp ku am taabal ci marché bi wala bitig daa am looy fay hmm? loolu la ñuy topp ku ku ku samp tab euh, panneau nii. daa am looy fay. daa am looy fay. dëgg la dëgg la ci commune bi. Mhm. ci commune bi. Mhm. su ñu fayee courant daa am lu ci commune bi jot. Mhm. nangam pour cent. bu ñu fayee ndox noonu. oustaz Ali yooyu ab xaalis la boo xam ne kenn xam nu mu léegi nag xaalis boobu du pour ngénte yi. gis nga. zul xarnay ni waaw penc ma dañoo nangu woon làmb seen poos jox ko mhm. Mhm. Ah, kon ko kon ko fal nit yow la ko fale da koy dimbali dangaa war a làmb sa poos jox ko mhm. waaye làmbal sa poos jox ma ku ngénte boo ko joxee cinquante mille mu ne cinquante mille da la ma jox sagalu cinquante mille billahi sunu bee nay bu booy ket sax ket wala yàq deram parce que <laughs> waaw bu ñuy ket sax faaw nga def ci dara bu ñuy ket sax faaw nga def ci dara ak topp tournoi yi <laughs> léegi loolu kenn mënu ko demal am na ci yoo xam ne nag da man da ngay domp def ca waaw <laughs> mhm. mhm. ah. sport beeg éducation bi waaw yooyu yooyu sax daa bokk ci kees gi bokk ci budget bi nga am très bien mhm. da domp def ca léegi nag loolu su su su leeroon nañ di ñëw di dem commune boo yor balaa ginnaaw suba. Mhm. mu leer nañ. est-ce looloo de xam naa bu ñu tànn am maire war nañ ko cee xool ndax it maire boo xamante ne daanaka qualité yi nga koy tànn weesuwul maire bi daa mën a dem ngénte waaye xam nga ne kii amul benn compétence ràbbale dara waaye moom daal ko oyof la mhm. wallaay moom daal ko xew la gis ko xam naa loolu bu ci bokkee est-ce loolu la a tànn maire loolu war ñu ko tànn ki ñuy tànn kay mm. dañu day am koo xam day am bastatan fil ilmi mhm. wal jismi dëgg la la alxuraan waxoon waaw basta tan fil ilmi wal jismi wal jismi dëgg la maanaam maanaam wax ko ci basta mooy loo xam ne mhm. ci basta tan mhm. mooy ak ubbeeku mhm. waaw capacité waaw fil ilmi loolu xam-xam a koy doxal waaw xam-xam mooy doxal toog nga ci mairie bi wooteel réunion sa agent yi ba ñëpp teewee nga wax leen li ñuy xëy ak li ñuy gonte dëgg la te jox leen ay rosi nag nga xam ne kenn du way kenn du fayu mm-hmm. def ci poosam yóbbu këram ñëw toog dëgg la su boobaa benn mairie du dox dëgg la mm-hmm. mais sax yow yaa ngi waxtaane ak njub ci njiit mais bu dee koo xamante ne bu toogee marché bi mu jox ay mbokkam jox ay gorom jox ay partenaire am <laughs> ñi mu bokkul parti ak ñi ko doon xeex ñëpp mu teg leen ci côté mm-hmm. fu mu gis ni kii ka fa teg ka fa nekk nekk fu mu créer la problème <laughs> loolu tam mooy indi pëccëxoo gi am ci pénc mi. waaw mooy mooy ñun li ñu tuddee maandute. Hmm. te politiciens yi du ko tuddee démocratie. Hmm. ñun mooy li ñu tuddee maandute. Hmm. politiciens yi du ko tuddee. démocratie démocratie. démocratie ci Afrique nag. ak ci réew yeeg ci yëf yom yom seen yooyu. wax gi daa gën a bari daa gën a yomb. doxal ko waaye démocratie ci maire yi. Mm. mooy li fi ñëw na leer. Mm-hmm. capacité yi nga xam ne ñoo nekk ci commune ci ci ci local bi. Mm-hmm. bul xool kii fu mbokk mm-hmm. ndax lu ko may léegi tey nga dugal joueur bu mënta fubal. ci place ko mën a fubal. dëgg la. Ah, dëgg la nga teg ko ci ñoo bokk parti wala ñoo far te fekk moom jikkuwut local bi mënta lijjanti ñaari bal lañ koy paas mu commencé wañ yem wañ ci marché <laughs> dëgg la de wax nga dëgg de wax nga dëgg xamul fu muy taxaw <laughs> wax nga jël jël jël affaire yëpp di ko jox say bokk itam loolu ci bokkal ci démocratie kon daal dafa mel ni kon campagne oustaz su ma dégg baax li nga wax maanaam bu ñu nee wéew oustaz Aliou Sall fal nañu ko ca kër ca daaru cubb hmm. na bàyyi politique nañ te xam ne moom lay mooy meeru gox bi waaw mhm. soxlay askan mu boot ñëpp waaw mu nga boot ñëpp su boobaa hmm. dootuma laaj kenn ci ban parti nga bokk mhm. Mhm. duma ko laaj hmm. man daal fi ma toog kon su boobaa hmm. ku fi indi ab dossier koo mën a doon dañ bàkke sa capacité lay xool sa compétence lay xool sa xam-xam lay xool ak koo mën a doon nag damaa mas a dem ci benn dëkk bu ñuy wax Bergamo ci Italie Bergamo waaw am ci benn local ku ñu fal ab euh, ca local ba mm-hmm. mu def benn mandat def deuxième mm-hmm. te war a def troisième waaw mu wàcc bàyyi fay xalaatam mm-hmm. dem ca usine ba fa mu doon liggéeyee allahu akbar di di journaalu na doon def est-ce que nit ñi xam nga lu doon wax waaye waaye kii yàlla na yàlla na kiyam bi jeex waaye yàlla na màndaa ku njëkk ki jeex waaye ba mu dóoraat mu delluwaat ca ndeysaan waaye moom bi mu solli ko dafa dellu ci la mu doon liggéeyee mhm. continuer di liggéey mhm. ba mandaam kee jeex mu ñëw laajan mu joxaat ko oustaz alin na la fan nga tolloon ñuy woon ci mhm. local rek si Bakke ci ci ci ci euh, commune bi ak ressources ci war a am ak maire bi nan la war a defee bu defee oustaz tam euh, électeurs yi nit ñi ban mandaal moo war a nekk ci ñoom ndax bëgg sa gox ak bëgg sa poche du benn bari na koo xamante ni coow lépp boppam la. waaw dafa am benn intérêt boo xam ne intérêt personnel la. Hmm. ma am intérêt boo xam ne intérêt commun lañ ko defee waxee. waaw waaw waaw jub <laughs> <laughs> ji <laughs> nit dafa am lu ñuy def ci moom. Hmm. lim bokk ak nit ñi. Hmm. gënal ko lim bokk moom doom dëgg la dëgg la. soo ko seetloo. loolu la loolu la ay loolu la euh, alxuraan di tere. ca waman yaxlul. waman yaxlul. man waman yaxlul. mooy euh, sëñ Silla yónni yób yónni ñu dara. wala murku jëmbaa paate. teg ko ci loxol Usaali Mbay mu domp ci dara denc këram. jox ñu la ci li ci des. loolu mooy loolu mooy. alxulul yaxlul alxulul. li ñëw ci yow war a àgg ci seeni woroom. yow nga am loo ca kii mbakkar feggu su su fekkee nit ki nun la yaroo toujours day dox ci lu jëm si ci moom toujours li muy dox mooy moom lu jëm si ci moom su fekkee yarawut noonu nag day dox lu jëm ci mbooloo mi ndax lu jëm ci mbooloo mi ci moom la jëm si dëgg la dëgg la ci lu wér xam nga fa mu xewe woon mooy dañuy xare am lu réer mhm. ci biir xare ku dëgër fi daan ne. Hmm. Muhammad a ko jël. laa gaa yi nag yàgg daa soxla bàjj gi moo ko jël. gaa yi yàgg nañoo tuumaal seen seen kilifa de. <laughs> Allaahu akbar kilifa gu toll na yonent bi nga tuumaal ko loolu. waaw. donc ci biir ci biir politique. su fekkee xeet wi aw xeet nag dañ leen ci dañ leen ci tàggat. Hmm. Hmm, dañ leen ciy nampal. ba ñoom ñu xam. intérêt bi nga xam ne yow kepp la. ak intérêt mbooloo mi. bis bu ñu la tàggatee ci intérêt mbooloo mi gënal la intérêt kenn ki su boobaa lu ñëw ci yow dëgg la ci mbooloo mi la jëm dëgg la dëgg la waaye boo defarul foofu nag lu ñëw rek nga domp ci dara moo tax oustaz ñu bari bu buñ faloo day mel ne ci profito ngay nekk maanaam ci faloo day profito moom ami compte profito ami kër profito wuti oto nga xam ne ci boppam lim daj ci jëmmam jéeg moomeeluk boppam bu doon da koy tasaaree ci li askan wi bokk mu feeñ jeex na tag penc mi su fekkoon ñëpp dañoo formé wu ci wàllu googu. Mhm. nga xam ne intérêt bi ñëpp bokk. moo leen gënal. Mhm. Mhm. Afrique gii moom suñu réew ci ëpp ay milliards. dëgg la waaw ay li ma fi dégg yàlla bàyyi woon de. Afrique gii. waaw suñu réew ci ëpp ay milliards. am nañ ko de moom. gën fee tàlli suuf. gën fee bëri bërim ndox. bari ay ndaw. gë gën fee bëri ay ndaw. gën fee am ay. intellectuel bu fekkee nu ñu ko waxee. waaw wala ay om yoo xam ne. <laughs> seen xam-xam defar na Afrique. Mm-hmm. Mm-hmm. malheureusement. li nga wax léegi waaw. nit ki su faloo day wax ne ci bi mu toogee. Mm-hmm. gis ñu ne ko ah léegi teg marché bi yaa ko gañe ay kopp la ñuy jaay. état bi daal bëgg kopp. Hmm? pour may ko xaalis rek. léegi ne ko nag kopp yi ñu bëgg. téeméeri kopp lañ bëgg. kopp yi li muy jar. <laughs> boo leen boo leen sax waaw. léegi moom kopp yi bu ci nekk 1000 francs la koy def. Mm-hmm. Mm-hmm. ka koy bindal yëf ya. Mm-hmm. bindal ko lu ëpp li mu am. mu domp ca jox ko. waaw domp denc. jëndi kopp dëgg la. li ñu séddoo ci ndoddu askan mi moo bari. waaw li war a ñëw ba ci ñun ñu séddoo nañ ko bu yàgg. léegi nag su boobaa. kopp bi ñun wint cinq lay jar. mais noonu mu ñu coûté. ñun 1000 francs la ñun ñun askan wi. ñun askan wi te waaw 1000 francs yi dellu ci poosu gaay yi. mooy li ñuy wax mooy li ñuy wax ci ci <laughs> ci carte lu ah, yi mooy looloo ci feeñ mbënd mi milliards yi ci dugal looloo ci feeñ mu mel nag léegi kon oustaz euh, yow bu ñu la falee dafay mel ne yow rek yaa yenu yan bi. Mhm. bu yàqoo yow a man li ma intéressé mooy nga defal ma. waaw parce que yu mel noonu. Hmm. bu fekkoon daara ji la. Hmm. day defar mbënd mi génn ci wala boog day defar waame wi génn ci waame waaw bu dul daara ji day wax ne bu ñu ko defaree ren bu déwénee duñu am marché bu duggaat ci yëf yooyu parce que COP bi boo ko naan da nga koy sànni bu doon buñ dul sànni buñ ko xasee am waaw kenn du ko sànni déedéet dutuñ ko soxlaati dëgg la acheté dëgg la dëgg la asaan gis nga yooyu ci politique ci ci mi ci anam yëpp mm-hmm. dafa am solo waaye daal wa man yaxlul mm. yaa ci maaxal la yomal xiyaama wallaay kon ki ñuy fal itam oustaz muy jël si commune bi war naa doon koo xam ne war naa amub liggéey waaw war naa am ci lu mu jàpp waaw war naa nga xam ne ay yéeneem mooy defar si waaye ay ay yéeneem du defaru si kese kese fa maa aataani yàllaahu waaw xayrun xayrun mimma aataani mm. allahu akbar <laughs> la soo xar ne na waxoon penc ma parce que li ngeen may defar loo di di cotiser pour defar ko mm-hmm. li ma yor defar na ko mm-hmm. wallaay xoolal xoolal googu doylu rek ci ci ci oh. compétence bu maire <laughs> oustaz compétence su maire. waaw léegi ñu commencé nga dégg dinaa defar ndox mi ndox mi yoon yi dinaa def indi lii est-ce que tam askan wi desul jotul ñu xam compétence su maire fan la yem <laughs> waaw am na lu mu ci man <laughs> waaw am na yoo xam ne moom mënu ko nag léegi nag bu ñu ci campagne bi nag day taxaw taxawaay président mais am na yu mu ci man mhm. am na mu ci mënut mhm. ndax lii génn ci koom-koomi local bi mhm. di dugg ci local bi bu ñëwee ca yooya am na yu ci man jamonoy Senghor daa amoon. Mhm. robinet yoo xam ne ñëpp a ko bokk. ndeysaan waaw wallaahi. ku amul robinet sa kër. Mhm. fa ngay rooti ji. dëgg la tey. amoon na. Ah, loolu. xam naa robinet bagaar loolu commune mën na ko local mën na ko. Mhm. xam naa robinet bagaar. jàkk yi nga xam ne dañoo ne ci koñ yi. te seen facture courant. nekk lu lu lu lu lu normal. seen facture nekk lu normal. yooyu attan nañ ko. dëgg la. moo xam jàkka jullit la moo xam jeneen jàkk jàkk bu nekkul jàkka jullit mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu dañ ko àttan mm-hmm. donc lii génn ci commune bi di Ross bokk na ci tey tey commune bi waroon moom naa fexe ba loolu ñuy def naan dañ laa sabo waaw sabo sabo waaw <laughs> bu fekkoon loolu day génn ci oto yi dem ca mairie ba moom it day sakkan lool. dëgg la de bu fekkee boo négocier ak nag mu dindi mu dindi yëf yi. Mhm. denc nga denc. <laughs> kon ku gaare foo ga gaare yooyu ñu lay tëj. waaw nga nga dem ci marché bi. war bindal waa ji juuti. ngeen xaajoo ko. Mhm. dëgg la ñun nag communes boo seetloo war nañoo mën a am waaw ba ba noppi dëkk bi jag. ci dëgg-dëgg ndax yi ngay wax nii yëpp rek buñ ko lijjanti woon ku gaare foo wërta gaare. waaw tuur mbalit ci mbedd mi. tablo yi ni ko Barthélémy Dias di defee. nga xam ne même ñu la jàppee ku sévère it. maanaam commune bi dana am xaalis ba pare nit ñi danañ régler. jeex na. Mhm. loolu la kat loolu dong la kat. Mhm. mais oustaz léegi nga. waaw jàppal bàyyil jàppal bàyyil jàppal mhm. bàyyil. tey bi ñuy bi ñuy werante fii ci euh, place de l'Indépendance. waaw di ko xëccoo dañ ko dañ koy def dañ koy def parking. ba fii nekk nii defaguñ ko. déedéet. ci maa koy def ak bu ko defee ci kii te diggante xalifa ak moom marché Sandaga fi nekk ni moom te marché ba coow laa nga fa ne cobbay coow laa nga fa cobbay kii ne maa ko war a defar kii ne waru ko defar maa ko war a defar danoo danoo bari wax de wax rek dañuy coow a coow dañu bari wax mais dafa mel ne dañu xamul fu ñu teg suñu tànk omelette dong dañ ciy coow ba ñëpp daje loo xam ne yow defar ab parking dong loolu waaye <laughs> ah, yow ñii daal nag oustaz yàlla ñu jéggoo defar ko ñu jàll ci leneen <laughs> parking xanaa bu ñu waa réew yi bu ñu waa adduna bi seetaan ay ree dañ ah, leen jàpp waaw ay parking ci place publique yooyu ñuy xëccoo maa war a tëli fii maa war a wax yéemal su ko defee doo xam xam lu muy firi. Oustaz léegi nga dem ci benn marché. maire bi di liggéey ci marché bi ndax ay ndawam a ngi ci biir. Mm-hmm. mais mbalit meeg weñ yee waaw dëgg la de. mbalit yu yàgg nag. ak ay xotti baraag yoo xam yëpp nga fa. di fayee ko juuti te doo bale doo taali làmp doo yoon. xam nga noonu suñuy marché. Mm-hmm. bi ñu koy samp. Mm-hmm. lañu am problème. dëgg la ñun suñuy marché. suñuy marché yooyu. marché daa waroon. bu kanti nekkee nii. kanti nekk nii. diggante bi. waaw amu yoon. am yoon wu mag hmm. te kenn du ci lal dëgg la hmm. dëgg la yoon boo def fii ni am yoon hmm. gauche droite nga am yoon góos nga am yoon si naa am yoon marché bi def noonu. Mm-hmm. su boobaa seetal ko day yomb. dëgg la waaye marché boo xam ne diggante sama kantina kantina bi sëñ Mbàkke. Mm. booy jaar da ngay borom dañoo jàkkaarloo. waaw mm-hmm. ah, boo jaar da nga kii. Mm-hmm. moo fab sama ceeb def sama kanam. moo ay saako saako soble mu def ci kanam. kuy dem foo jaar. la te kat marché yëpp oustaz boo xoolee ci cosaan léegi defar bi ni nga wax nii noonu la mel. marché yi daa am i tëli am ay yoon ci biir am nangam. waaye yoon yëpp nit ñaa ngi lal ci kaw loolu liggéeyu maire yi la. waaw ndax ñooy joxaat am mor xuja ay ticket mu jaar fas bu xëyee encaissé leen defaat ci kees gi <laughs> dëgg la loolu de li gën mooy branchement clandestin yi. Mm-hmm. léeg-léeg marché bi au lieu que nga ubbi sa cantine wut compteur da ngay wut ku la jox. kee mm-hmm. branché la kee cappal la kee nangam moo tax bu court circuit amee. ñëpp a ñëpp a ñëpp waaw ah, marché ñu ne marché ba lakk na. loolu itam léeg-léeg. Mm-hmm. ñu yor courant bi. seen wàll bi waaw. <laughs> léeg-léeg nga ñëw bëgg a soxla. compteur waaw. topp ci ñaari at. waaw c'est très difficile. Ah. mbaa lu ko jege bokkul. Mm-hmm. demande bi daf leen dépassé. Mm-hmm. su fekkoon boo xëyee bu ngoonee nga am. Mm-hmm. am compteur ak di fay moo gën a noppale fuuf nit di la xëccal. Ah, waaye nag bu la leeree ne boo bëggee wutit mu xaw a jafe da ngay mujj obli maanaam préféré waaj a xëccal la. loolu mooy yëf yi. maanaam li war a yomba am. na yomba am rek. waaye li jafe li yomba am. waaw bu jafe ko jafe ñalee rek. Ah. nit dee la du sàkki pexe. Ah, waaw wax loolu rek la yàlla yàlla boole dimbali. amiin amiin amiin salaamaaleykum. waaleykum alxaaji Ibrahima Faye. alxaaji Oustaz Alioune Mbaye maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. fay fay Birame ñu ngi lay fay biram mbay ñu leen di nuyu. leen ziar di ziar papa Oustaz. ñu ngi lay fay. di ko wax sala juma mubarak. fay ñu ngi koy nuyu di bu baax. jërëjëf jërëjëf ñu lay fay. Eh, di jaale jullit yëpp rawatina waa murit yi. Mhm. waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di leen jaa jaale Serigne Cheikh Jëmm Fall yal na ko yàlla yokk yërmande yal na yàlla wàcc moom yërmande defal ko taw fee fa mu nekk. amiin amiin amiin ñu ngi koy jaale bu baax di ko jaale jullit yëpp. Hmm? ñoo ngi ziare réew mi yëpp di ziare suñu papa suñu oustaz papa Alioune Sall ñoo ngi koy nuyu di ko ziare di ziare Serigne Ahmadou Rafaal Mbacke Touba. Hmm. di yokk nuyoo bi rek di si boole suñu Abdou Samad. Hmm. Mbacke ñu ngi koy ziare bu baax. Eh, te am ñaari laaj rek yu tey. ci wàllu atte mhm. euh, l'islam euh, dañuy gis réew mi ni ñuy atte nit ñi tëj leen ci ay kaso du leen atte du leen bàyyi wala ñu tuumaal nit ki mhm. lislaam lan la wax ci koo xam dañ ko atte pen parce que da ngay gis ñoo xam dañ leen di tëdd jël rek def leen man mandat dépôt du leen atte du leen wax dara waaw euh, téye leen ay at da ngay gis ba mu yàgg ñu téye nit koo xam ne nii dañ lay téye ay at xëy xëy rek bàyyi la ne defoo dara loolu li si lislaam wax euh, beneen bi dama bëgg mu ñëwoon si euh, surat nisaa yi fukki aaya bi euh, li muy wax si wàllu sëy waaw ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen wax wax jumaa mubaarak aaya bi wax ci wàllu sëy <laughs> xëy na muy fan ki xaw ma taaba hmm? <laughs> jërëjëf jërëjëf Ibrahima Faye Allemagne ñu ngi koy nuyu bu baax a baax 88 628 98 98 salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. ay sëñ Mbacke Sylla maa ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu ziar. Basirou Samb Bilbao. Basirou naka waa Bilbao. ñu ngi leen di ziare bu baax di nuyu Oustaz Alioune Sall di nuyu kilifa gi Oustaz Alioune Sall. jërëjëf jërëjëf Samb. wax ni ah semaine yi de moom jafe woon na lool jot nañoo dugg waaye xaw naa jafe waaye nag noonu la. dëgg la moom mënut a yomb. dëgg la dëgg la ndeysaan. ñu ngi ñu ngi ñu ngi rafetlu jotaay bu baax di kontaan ci waxtaan yi. jërëjëf jërëjëf. tey xam naa benn ñaari ñaari laaj laa amoon benn bi ci <coughs> suratul anfal aya 36. anfal aya 36. bi ci des nag xam naa ab commentaire lay doon boo xam ne dama koy wax oustaz mu indiwaat ay leeral ndax Mbàkke seen oustaz seen xibaaru baar yi mardi bii waxuma ko ba ca ba ko jiitu. Hmm. xam naa waxtaan bi ngeen ko waxtaanee ak ci niveau bi ngeen ko waxtaanee xam naa yéen sax da ngeen ko waxtaanee jàll rek waaye xamu leen léegi nag ma ma gis Oustaz Alioune Sall lu yàgg yàgg yàgg day am ay xalaat yu rafet yoo xamante ni man man xam naa ni yii nii suñ ko defee Sénégal mën naa jëm ci kanam te lu yomb la. Mhm. te ñëpp xam nañ Oustaz Alioune Sall ci Sénégal ni ko suñ borom def ak ni ko nit ñi joxe bopp. Mhm. léegi mu nekk di wax wax yu am solo yooyu fu nekk mu di ko fa wax di ay maanaam loo xamante ni yow dangay xam ni lii buñ ko defee réew mi mën naa jëm kanam léegi mu koy laaj. Mhm. ndax Oustaz moom xanaa jombul parce que bu dee ñi jiite dañoo bëgg réew mi jëm kanam. ku mel ni oustaz Alioune Sall di wo di wax wax ju am so solo jooju noonu. Mm. xanaa jógul président woo na ko ni ko oustaz kat li ngay wax nii ñun dañoo jiite te réew mi dañoo bëgg mu jëm ca kanam léegi lii ngay wax ku ko bëgg a def maanaam nu mu koy defee bu ko defee moom moom mu wax ko. Mm-hmm. parce que jàpp naa ni moom wax ji muy wax bu ko bu ko bu buñ ko defee Sénégal dina avancé. ndeysaan. Mm-hmm. te yaakaar naa ne ku jiite sa njaboot jiit moom ñaar la mooy nga yërëm ñi nga jiite. te yaakaar naa kon ñoom ñi leen jiite yërëm nit ñi mooy fexe bañ nekk ci jàmm ndax mm. Sénégal. Mm. sonn nañ dem Mbàkke. dëgg la. dund gi seer na de barki alxuraanu karim lu métti la ku da loo daa foo daa dépensé fukki junne juróom ñaar fukki junne yu teg la léegi mm-hmm. loolu nag lu métti la nañ yërëm ñi jiite te rek tax mm-hmm. maa ngi jégalu ci kàddu yi jërë ngeen jëf na ndax affaire dafa seer <laughs> waaw fi man man ab ceeb moom ab ceeb daa bu yokkoo sama waaye sama sama sama surtout jóg <laughs> ceeb ak jiw boo ko supporté jaajëfal ko bu baax a baax a baax sama mbokk mooy sàmbeen bi Basirou Samba Bilbao Oustaz Mbacké 88 624 am na ko na ci biir asalaamaaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Morola. waaw kii de ku leen gëj a dégg la ku leen gën a woo la nag. Moussa Cissé xamee na la parce que euh, dégg naa ñebe ñebe jaañ commencé ñor. ah ñoragul nag waaye léegi mu ñor am nañ ci yaakaar. <laughs> bisimilah. ñu ngi siyaar bu baax a baax Alioune Sall. yaa ngi bàcc si jàmm. siyaar Mbacke Sylla ak di la siyaar yow moom. jërëjëf Cissé am na solo de wax dëgg yàlla. alhamdulilah Cissé. maa ngi ñaar yàlla yàlla na yàlla jox leen kenn ku ne maire gox ba nga nekk. <laughs> ñoo xam ni ngeen mëne. Hmm. waaw. ah comme comme comme comme journaliste mi ngi laaj maire kay ngeen laaj maire. waaw. ah waaw jaaru na de <laughs> yombul de. yàlla ñii laaj maire ñi ñëpp ku ci falu. Hmm. benn mandat boo moytu doo doo ko parce que dafa jafe. Hmm. dañuy yaakaar ci yow amuloo ko. maa ngi si siyaare ñëpp di jaale waa Morolan accident boobu mu dégg tey ci suba. ba ñaari bakkan rot ci yal na yàlla xale leen aljanna. amiin amiin amiin ñett gaañoo damay laajte rek. Mm-hmm. suuratu mulki. suuratu mulki. huwa lazi jaala lakum l-arda zalulan fa amsuu fi manaakibihaa wa kullu mri'in sha'wa ilayhi nushur. Mm-hmm. rek sunu borom wax nañu ma baal ci ni ma ko wax. Mm-hmm. beneen bi suuratu saat. yaa Daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi fa ahkum bayna naas Hmm. ñaar yooyu laa bëggoon a laajte di jaale ñëpp nekk ñi nga xam ne jóge nañu si yal na yàlla xale na ak gën a mat yàlla na ko yàlla jóge hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Moussa hmm. jërëjëf Moussa ñu ngi koy nuyu baax a di nuyu uh, waa Morolan yëpp 88 628 98 98 mooy jaarukaay bi rek def leen noonu yéen ñi nekk bi nuyu dama ngeen jaay ci 33 841 22 33 jëlal ko bu aywa Eh, waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Mbacke. waaw kay docteur Alioune Gadiaga. ñu ngi leen di ziare suñu aaya ba xul lan yusibanaa illa ma kataballaahu lanaa. ndeysaan. wa mawlaanaa wa alaa llaahi falyatawakkalil mu'minuun. jërëjëf jërëjëf waaw di ñaanal suñu oustaz boobu oustaz Alioune Sall di ñaanal oustaz Alioune Mbaye di la ñaanal yow oustaz Mbacke. jërëjëf jërëjëf Gadiaga na yàlla defar seeni mbir may leen war a xéewal. amiin amiin di ñaanal oustaz cinquante deux milliards yi yàlla na ko yàlla tasal ci cinquante deux ans yii di ñëw bu ci nekk mu jox ko un milliard mu ànd ak war a xéewal bu projet yi àgg. ndeysaan yi mm-hmm. Euh, vraiment jàpp nañ ci bu ñu sañoon ñu am 30 minutes yoo xam ne dañuy sponsorisé ba euh, suñu président suñu directeur Omar Gueye daal di yokku daal di yokk tama bi nga xam ne moom laay kitaab di dem ndeysaan di ñaanal ci ñun sponsor yi nga xam ne ñoo nekk ci serveur bi mm-hmm. euh, ndax yenn saa yi nga dugg ci sept huit minutes doo jot mais nga am loo ci bàyyi. Mm-hmm. képp ko ci def daal yàlla na ko yàlla def si misaanu asana. amiin amiin yaa rabbal di ñaanal soppi yeeg Tade Mathilé yeeg Soukeyna Tandja ak Aram Ndour ak Moussa Diawara ak kafiyatu moomu nga xam mooy suñu président ak imam ali nekk sàngal kam ak waali imran yem ñu ngi leen di ñaanal eh, jërëjëf dañu bëggoon ñëw ci ñaari laaj rek benn bi ci alxuraan la ndax thème mu tey moom macha allah dafa am solo. Mhm. Eh, bu Oustaz Alioune mënoon a jël semaine bu nekk ci alkitab mu jël ci benn cinq wala dix minutes boo xam ne Oustaz dinañ ñëwal ni ñu war a yore. Mhm. defe naa dina dimbali ñuy yor dimbali ñi ñu war a yoral. dëgg la dëgg la ci leeral incha allah boobu alxuraan lay doon ñu ñëwaat soratu kax fi rek. te mhm. cat la Oustaz ñëwaatal ñu ci eh, xisa Zul Xarnayni rek. incha allah. ba bu ma ñëwee dani euh, su mat ba sababa ata isa balaxa bayna sa day na la min duniya xaman laa yafqahuuna yafqahuuna xawla mm-hmm. xaaloo yaa zal xarnayni bu ñu ci mënee ñëw ci leeral rek incha mm-hmm. Mm-hmm. beneen bi dafa am euh, sama benn xaritu santu si la sax bi yoon loola sant <laughs> <laughs> daf ñu daf ñu daf ñu daf ma jiite julli <laughs> ah. léegi bi ñu ñu waree taxawal tàkkusaan xam naa comme dañoo jóge ci basket bi affaire yi tàng mu def benn rakk rek daal di toog <laughs> bëgg taaye ñun ñu jóg saabal ko mu jóg mhm. bi mu ñëwee ñu àggale julli gi bi ñu sëlmalee euh, deful baax de salaam ma laaj ko nag comme euh, daanaka sama imaam la moo ma xaw ci xam-xam. Mhm. ma laaj ko ni ko ah man de bu ma toogoon ba ñu sàbbaal ma mu jóg bu ma jógee damay jàpp ni yokk naa ci julli gi. Mhm. mu ne ma nag comme dañ ko sàbbaal mu jóg te jotu la jotu la taaye jóg bi yàggul parce am na ñoo xam ne te mën nañ fa toog soog a jóg. Mhm. may laaj nag loolu dañ ko war a sujjootal am buñ ko sujjootalee laa say laa sayoon fii. Mhm. loolu daal moo doon ñaari laaj di leen sant di leen gërëm Oustaz Alioune. waaw war naa la jël inbox de. ah yow kay moom yaa nii rek. waaw incha allah. <laughs> after after you call me maa ngi leen di leen call me. waaw après lan la boobu lan la chinois wala arab ah anglais la ñuy wax ah nii. waaw <laughs> pour man sax chinois wala arabe laay ñàkk a jàng baaxut. ma day ji after you call me. non non <laughs> est-ce kooku egsi na. asalaamaaleykum. <laughs> asalaamaaleykum. waaleykum waa yaaram. waaw. allo alo alo waaw yaaram kooku. Imaalin Saliou Diakhaté la. ah Kaba Yéeri. yéé annu mbara annu mbara ala suñu tuuti yaay laa kontaan lool. bari caaxaan waaw. maa gën a bég lool. laay ndeysaan bég nanu ndaw la ñëw la. wallahi sama xool dafa sedd lool ci yéen. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. dégg ji ma leen di dégg rek. Mhm, ndeysaan. yar na budget bi ci Sénégal ñu bàyyi ko ci seen loxo. allahu akbar allahu akbar. na diine ji ngeen nekk di ko doxal. Mhm, mhm. ñun ñëpp ñu waroon a jël. suñuy dërëm ak suñuy fukk boole ko. di ko teg ci seeni loxo. ndax yëf yi gën a mën a dox jëm ca kanam. ndeysaan waaw yàlla sama fan gudd waay. amiin man daal ameel naa leen ak cant ak ngërëm. jërëjëf sëñ saaliw yéen ñi teew foofu foofu noonu. jëf sëñ Saliou. toogee fa jotaa bi. Eh, bala ngaa bala ngaa laaj. Eh, ndaw loolee nga diggee woon ci antenne bi ca ajjuma jee. loola ñëw na ñëw na sëñ Bakke jox nanu ko. <laughs> jërëjëf suñu xol sedd na ca. waaw loolu moom na na weesu nañ ko Imaam Alioune. kon nag léegi léegi Mbacke moom léegi jaxate la sant léegi. <laughs> déedéet Imaam Alioune. Ah. <laughs> Euh, dafa annoncé woon ci rajo bi añ ba mu añoon ba muy soog a jógee daara añ añ bu mel noonu laa ko bëgg a defal ba pare soog a nangu sant bi. <laughs> <laughs> boobu moom yombatut añ boobu moom yombatut ceebu ngot la woon ceebu maalin maalin Mbàkke añam boobu rëy na de rëy na moom kër daam ñang la woon du nga fàtte de du nga fàtte mukk de léeg-léeg ma toog mu dem ci sama xel ma ne xam naa ne Mbàkke moom ndeysaan gisub lañ ko waroon a summi rek <laughs> mbubb mi door ñu ko ko delloo allahu akbar waaye alhamdulilah sant bu baax a baax. jërëjëf bisimilah bisimilah. ñi ngi ziar ñëpp di ziar oustaz. alhamdulilah Cissé. di ñaan yàlla saa borom yàggal leen fi lool sa ngeen wér. amiin yaa rabbal alamin amiin. kàttanal leen. amiin ba yéene ji ngeen am. ngeen mën a yeggali la ci ëpp. jërëjëf jërëjëf. waaw laajub tay bi moom bëggoon oustaz ñëwal ñu rek ci sóoratul kawsar. sóoratul kawsar. ba wa jeex ñaareelu laaj bi ci des hmm. mbokk ngi nii moo xam ni hmm. daa am ay lënt-lënt ci boppam hmm. daa am mbokkam mum bokkal moo xam ni mbokkum deret la mu am soxna soo xam ni du jullit soxna sa am ku mu faatule ci ay waajuram muy laaj nag moom nan la war a taxawee ca mbir moomu loolu daal moo doon ñaareelu laaj bi bëggoon ustaas euh, indil ci ay leeral baax na incha allah di ñaan jàmm ci Sénégal ak réew yi ko war yëpp comme ni ko ustaas yi waxee mhm. defal ñu ko defal leen ko ñun ñëpp saa borom boole ñu defal ñu saxaadatu daara ni amiin amiin kenn dal ak jàmm. baarakalaa jërëjëf jërëjëf Diakhaté madame madame Diakhaté <laughs> madame Sarr ñu ngi koy nuyu bu ci waa CD yi itam. kër ñëpp dar ba. ndeysaan. <laughs> jërëjëf madame Diakhaté. jërëjëf. tubarkalla 88 628 98 98 10 heures jot na ba tey ñaar fukki simili ak ñaar euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Bakke. waa Cheikh Ibrahima wadd wadd eh, Yatma Mbodj. Yatma <laughs> yat ma Mbodj Njang Ba Mbodj. <laughs> man man dëkkam boobu sax laa xamul fu mu féetee ba ma ba ma fay dëkkaloo. doy na waar de <laughs> man kay maa juum rek. dama ko maa ko nuyu nag mais dëkkam wax fu mu féetee ah parce que nag nit ki moom buy buy wax benn dëkk la wala xam fu mu fi man xaw ma njàmbur la nekk. gawaj gawaj. Kajoor xaw ma. d'accord. xam naa moom itam bu moom itam moom itam dana laaj yan ma mbóoj fan la ñang baa mbóoj féete <laughs> waaw ñang baa mbóoj moom yàgg yaa ngi yow yaa ngi mel ne yaa ko dàqalib dëkk naan dëkkam boobu di ko kii noonu te yéen ñëpp yem seen dëkk yi benn neexut <laughs> <laughs> ah, maa ngi leen di bu baax Mbacke euh, ne fan maa la dégg na nga wax benn wax boo xam ne xëy na ñu bare bari sax dañ ko wax Sénégal mais man d'accorduma ci am ah, moom mooy ni nit bi comme bu dee bàyyi fi alal rek ñu ne gis ngeen luñ fi bàyyi ci teewul mu dee waaw man nag daal li ma yaakaar mooy alal ji moom du dee mhm. waaw ca xam nga borom alal waaw alal ji moom du dee moom nit ki nag moom lu mu am mu ñàkk mu am yépp dafiy jóge dëgg la waaw ca man dama yaakaar ne a encouragé nit bi mu ni man daa jëlatul may wut alali àdduna parce que dama fiy jógee. <laughs> Hmm, loolu de yaa ko ci déggee waaw ca xam nga daal euh, man daal noonu laa ko foofu laa ko jàpp. waaw ah, kay <laughs> option la. waaw waaw waaw maa ngi may laaj nag ba xam euh, diggante jëw. Euh, hmm. frontière jëw daal. Hmm. waaw lan la parce que xam nga yenn saa yi nga laaj benn nit ñun la waaw moom ma nga fa waaye moom yëngatuwaat na jabar jaa nga laan ah ñu naan la moom de moo tooñ sax moo def lii xam nga yu mel noonu yëpp am information moom boo xasee laaj ci nit ki yu nekk dañ la ko ci yëgal ci moom. Mhm. léegi nag may laaj ba xam euh, daal lan mooy frontière u jëw. Mhm. waaw di ci def tamit moom mooy ni euh, impôt. impôt xam nga damaa dégg démb ku ci wax mu ni sénégalais yu bari duñ ko fay mais ma koy laaj ba xam ndax ñàkk ko fay bi moom euh, islam nangu na ko wala nu mu demee daal ci l'islam nu mu nu mu tëralee impôt ak ñàkk ko fay beeg fay bi. d'accord waaw maa ngi nuyu nag euh, Ibrahima Mbodj Salam Mambousso ñoom. Euh, Cheikh Tidiane Mbodj ñoom Amar Maada Amar Penda waa Louga yëpp waa Njaañ yëpp jërëjëf waay yàlla yàlla guddal seen fan. amiin Mbodj jërëjëf jërëjëf sëñ Yatma Mbodj mu baax moomu Njang Ba Mbodj la dëkk di wootee ci bitim réew ñu ngi koy nuyu baax di nuyu waa Louga ak waa Njàmbur yëpp ñu ngi ñuy déglu Imaali am na kuy daw di ñëw xam naa egsi na dalal ko. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz na ngeen def. ñu ngi fi alhamdulilah. maa ngi lay nuyu bu wér di leen siyaar. yàlla yàlla nangu ngi lay delloo siyaar yi itam. amiin yaa rabbi alamin. na nga tudd ak sa woote. Euh, Dame Gueye. maa ngi wootee Gueule Tapée. Dame Gueye Gueule Tapée bisimilah Dame. waaw man dama moom euh, ñetti laaj. Mhm. waaw bu njëkk bi kii la aaya alquran. Mhm. mooy bu euh, fi tàmbalee kii. inna allazina amanu aminu saalihaati kaanat lahum jannatun fil dawsi nuzula mhm. ba fi yam walaw jinna bi mislihi madada waaw boobu mooy bu nekk bi bi ñu topp euh, damay damay faral di dégg oustaz naan euh, tabaaraka ku ko mokkal doo am bëggalu bàmmeel léegi may laaj ci ban ban jeexital la am ci ki nga xam ne mooy mujjirimiin bu ko mokkal. waaw ñetteel bi mooy <laughs> mooy ci wàllu kii la jëm. Euh, mhm. lu waral nit di ñaan. Mhm. parce que donte nee nañ li ngay am ci àdduna yàlla suñu borom bind na ko ba pare. Mhm. donc lu waral nit di ñaan. gudd fan ak xéwal ak wërsëg ak yooyu. Mhm. d'accord dugg na bu baax. dugg na waa dégg nañ ko bu baax. waaw <laughs> kay jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. te rafet lu duggam boobu daam ngay gol tàppe lay woote Imaam lii defe nañ ñeenti minutes ah. voilà dese nañ ñeenti minutes. Mhm. gaaw leen ngeen profité indi seen laaj incha allah bu ko ngeen bokk ci ñi ñuy euh, tontu seen laaj tey. Mhm. nuyul kooku. aywa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Baye Mbacke. waaw Ibrahima. <laughs> waaw seex bi na ngeen def ak coono ah? ñu ngi eh, eh, ñu ngi lay dégg. allo Ibrahima Ibrahima ñu lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax Ibrahima. asalaamaaleykum. salaam wa ñu ngi lay dégg de. Baye Mbacke. waaw ah, ñu lay dégg bu baax kay. ku la balay sax. jërëjëf Wade Wade. xam naa lii lay tey nii <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf wàdd wàddin ko wàcc. di siyaar sa waayu de. <laughs> waaw xam naa léegi nag xaw naa laa rek a melekul moo ko ma moom la ci toll ma <laughs> dëgg la liir bi liir bi dafa amoo ba pàcc dafa rëbb. waaw kiimaan la. kiimaan la kiimaan la. maa jërëjëf ndeysaan. sóoratul Fath rek dix ak onze ah. d'accord. sunu taxrim fatxi ah surtout fatxi <laughs> yow looy dégg safi baax na jërëjëf safi lool safi ah waaw ah, d'accord safi mhm. maa kan fatxi la wax safi ay ay dix la wax rek dix onze laa la jërëjëf jërëjëf Ibrahima Wadd Waddin Gawaj ñu ngi koy nuyu baax baax <laughs> Gawaj ji day neex moom eh, Ibrahima yow xamal ni Mbacke jëlal na fi paar léegi nga naan <laughs> di nga ma fay waaw moom xam nga déggul mhm. nga jël salaamaaleykum waaw waaleykum salaam waaw yaaram allo. allo sëñ bi. waaw waaw. kan la sëñ Mbacke. waaw ñun la ñun la alaaji. waaw ñun la ñun la ñun rek. ñu ngi lay siyaar bu baax. jàmm rek alhamdulilah. <laughs> di siyaar euh, sang yu baax yooyu. jërëjëf jërëjëf. xam naa nag euh, mag muy woote la ndax lu bon bon am naa juróom-ñaar ci at. Mm-hmm. allahu akbar. waaye maa ngi leen di seede ni ñëpp a ngi leen di sant. alhamdulilah alhamdulilah. oustaz nag comme dafa nekk nit koo xam ne ñëpp koy déglu. dëgg dañuy wax ci wax sa xalaat. Mhm. mu dajji leen tuuti delloo ci leen. Mhm. ndax jullit lépp lu muy wax. daa war wax mhm. loo xam ne day jariñ nit àddina di ko jariñ àllaaxira waaye wax dëgg yàlla. boo seetloo rajo bi léeg-léeg ñu dégg ci kàddu yoo xam ni. day mel ni xëppante rek la. te nit lépp lu ñuy wax da ko war a gëm xam ni dina wéet ak bàmmeelam. ndeysaan. te ni ñu audité nit ñi ñu di ko wax. war na yoo xam ne noonu la ñuy audité làmmiñ yi ëllëg. dëgg la ndeysaan. te comme ñëpp koy déglu. maa ngi koy ñaan mu ñaax leen. ñu dellu si bañ par par loo di wax te yàlla tax. waaw jërëjëf maa ngi leen si bu baax. jërëjëf. barakallah oustaz Alioune kon alkitab lan moo ci tege incha allah bu ñu musaan toll fii nag oustaz mooy dañ daal beral nag waar laaj woo xamante ni suñu mbokk yi dañuy ànd ñun ci émission bi mhm. te wax di yàlla xoromal ko lool muy sponsor yi ñoom mhm. la naan beral ak ñaan loolu kon ngërëm waaye ñu ñaanal leen yàlla na ñaan yi nangu amiin ci ñoom ñi nga xam ne ñëw nañ ak ñi nga xam ne ñëwaguñ tey bëgg a ñëw amiin yaa rabbal aalamiin amiin baarakallah sunu magu daara Alioune Lo waaw tabaarakallah ci taxawaayam mm-hmm. macha allah eh, gërëm ko bu baax seen karo kër xaadim mm-hmm. macha allah madaar madaar waaye sa nelaw sa sa la bi tam. mat la waaw kenn hmm. li door ah. li door waaw d'accord li door waaw dëgg la Mbacke ñama ah, ah, ko ah kay ah kay am na <laughs> am naa ñun ñett ñëpp lañ jox macha allah. yal na yàlla fay leen. ay ay pën ñoom si ñoom tàngal. dëgg dëgg la. digaalu saas ñu ñaanal leen. amin yàlla na yàlla barkeel leen. amiin yaa rabbal alamin yàlla na yokkute am ndax yéen a ngi. naa la la maire boo xoon. Mhm. Euh, gaasu Oustaz Alioune bi. waaw yàlla bëgg a wax euh, matlab Oustaz Alioune Sall. matlab matlab Oustaz Alioune Sall bi <laughs> waa li door de tubarkàlla. macha allah mbaa euh, soose bi ngay publicité. muy seen ñetti xaaj suñu dund dañ koy nelaw. waaw soo tekkee ko topp nelaw rek ngay def <laughs> nelawi leen. alhamdulilah <laughs> docteur Alioune Gadjaga wax na ko léegi ñu jaar ci serveur bi ñoom itam. Mhm. léegi nga def ci huit minutes sa xaalis dem. ndeysaan ak fari ah, industrie ah. waaw fari industrie. waaw waaw borom pën si ak yooyu suñu jigéen ba. waaw suñu jigéen ba seen madame Mbodj. Ah, day ah. kii de. waaw waaw waaw jar ñëpp a jar a jaar. macha allah jërëjëf. dëgg la madame Mbodj ñu ngi baax a baax. Mhm. si la monsieur Mbodj. monsieur Mbodj madame Mbodj moo sant Sylla ah ok waaw après après muy neexal monsieur Mbodj nag dem ne léegi madame Mbodj la daal denc Sylla ji ah, jébul ah, jébul <laughs> waaw madame Mbodj yàlla boo am wujj jërëjëf kontaan nañ ci <laughs> yàlla wax gaaw am ah, ah <laughs> kon point d'interrogation ok <coughs> docteur Aliou Gadjaga eh, ci mm, eh, serveur bi ñu fi leen jaar ci mu yàgg lool te du la naqadi da jàpp ne sous forme de euh, participation participation mm-hmm. loolu tam ñu ñaana leen ci yàlla ko yàlla def seen téere amiin yaa rabbal aalamiin te yàgg leen ci liggéey bi mm-hmm. amiin amiin oustaz mbokk mi nga xam ne moo jëkk a jàll ci buum gi tey mm-hmm. mooy sa doom jële ci Allemagne muy euh, Ibrahima Faye yàlla nag yàlla may wér amiin amiin yaa rabbal aalamiin euh, li mu jëkk wax nag te ñu waroon ko ubbee xam naa xale yi fatu rek. sunu baay sunu sëriñ sunu soppe. maam Cheikh Jëmb Fall. ndeysaan xalifa général de Baye Fall. wallaay ndeysaan dëdduñu barke Demba Ndiaye muy widd bu rëy. ñaan ko yal na ko yàlla yërëm te xaar. amiin amiin amiin am na solo. macha allah euh, li nga xam ne nag moom la indi comme laaj ñaari laaj la indi. laata bu njëkk a def nii dafa la bëggoon nga <coughs> ci détention yi nga xamante ni. moom la ñuy lan la lislaam wax. Mm. ci soo téye nit àttewuloo ko. tëjoo ko mu nekk ci xiini mii ni mhm. ba mu neex la yenn saa yi ñu ni la génnal defoo dara mhm. lan la lislaam wax ci loolu mhm. bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa ma allamtana innaka anta al alimul hakim xam nga lislaam moom daf ñoo noppaloon daf ñu noppaloon ne atte bu ngeen atte du bu lislaam bii tooñ ngeen ki ngeen atte allahu akbar weddi ngeen ki leen atteloo hmm? loolu la. man lam yakum anzala falaakum. kaafiruuna. kaafiruuna zaalimuuna. zaalimuuna faasiquuna na. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que l'islam kaso man na ñàkk fees. Mm-hmm. dangaa sàcc lu jar dagg sa loxo. Mm. bu ginnaaw subaa ñu dagg ko. jeex na. dangaa sàcc lu jar rey ginnaaw suba lañ lay rey. tey. monde kon problème bi kay mooy su ma amoon paas yi. tàmba waaw du fi jaar si. waa dëgg la wala sax fa nga nekkoon dox. doo ñëw Ah, ah waaw waaw fu ma nekkoon bu doxoon bu doxoon it doo ñëw. dama ab jàngalekatu arab laay doon. regretté naa dëgg la <laughs> ndeysaan. ndax dama daan jàngale. waaw na nga ni kon da yónnee sa leer. yónnee ah, yónnee surnaal <laughs> yónnee surnaal boo xëyee toog di liir <laughs> ah, naa as ca leer as caleer ci néegul kon ci ñi déggul olof lan moo wutale salaire ak us caleer as caleer mooy tuuti loo xam ne fa fa ñu soxla boo boo fay ko di lépp boo fay ko lépp. suñ ma ko fayal Louga. waaw su ma ci su ma ci yii gerte caaf day manqué. billaahi. noonu laa koy ŋàbb rek ilaa mbàkke. ndeysaan ndeysaan dem na sama yaay am. ndeysaan mais oustaz ba nga jëmee Tamba looloo dugg gaal ñoo xaw a tolloo de est que yow bu gaal amoon Louga jamono yooyu doo ko jëm. yaakaar naa ko nag <laughs> yaakaar naa ko de. moom kay bu fa gaal amoon lu lay dugg bu paas amoon direct lay def. <laughs> Ah, parce que itam dëkk bu dëgër ba bàyyi bàyyiloo oustaz ay kalaasam mu fas yéenee jaayee xar Tamba <laughs> ah Sénégal yàgg naa metti bu <laughs> jeex tàkk. waaye. ndeysaan damaa dégg bugaan gi naan gëm sa bopp. waaw waaw. dëgg la nga ñëw ne ci rek. loolu jaar naa yaatal lool. nga ñëw ne ci rek ci rek. moo tax moo tax léeg-léeg damay faral di wax ne loolu rajo yeeg télé yi xam naa émission yu bees la yu ñu war a indi. maanaam di jàngat parcours nit ñi ñu tudd. voilà nit ñi ñu tudd maanaam benn milliardaire ñu jàngat ay jaar-jaaram. dana tax ku naroon a découragé. du mhm. découragé fi mu toll wala ku siiw ci xam-xam comme yow ñu jàngat ay jaar-jaaram. mais ñi koy def. waaw dañ koy bëgg a def ci benn émission. Mhm. Mhm. te naan la waxtu wi. waaw doo mën a wax say jaar jaar yëpp. jeex mukk nga tënk lépp. wala ci nu bi ñu jaxale ko luy sa palaa. ay palaa yooyu moom amul solo lool. palaa moom palaa moom dañ koy tal palaay lan. mais dëgg la kuy kuy Oustaz waaw léegi ci diggante si nga bëgg a def waxtaan. Mm-hmm. Oustaz mënu fi wax boppam. jeex na mm-hmm. moom koy dugg bu baax a baax ci yëf yi. Mm-hmm. ba nga xam ne yow mi toog nii di déposé jee ko wuti liggéey mu të. ba nga yaakaar ne àdduna day tukki. soo ko defoon Serigne boo ko defoon Serigne Mboup. Serigne Mboup waaw. mbaa nga def ko Serigne Cheikh. waaw kay mbaa Alioune Lo. ñu lobb ma jaar waaw kay wala Ablaye Jasseniko wala Ablaye ah waaw kay wala wala wala da ngay mën a feeñal ku ñëw tàmbulee zéro góorgóorlu ba ah, ba ba recruter ay nit jeex na waaw ah, euh, kii ngom mi yor euh, sédiment waaw borom ginaar yi borom ginaar waaw ker ba ma fa demee toog mu wax ma ci ñaata ganaar la déparé fu mu ko defoon mhm. non lay allahu akbar ndeysaan waaw nangam nangami cuuj laa déparé mhm. barab sàngam laa ko defoon dëgg la xam nga loolu dañuy dimbali man damay faral di wax ne même tubaab yi nga xam ne ñun bu ñuy seetaan seen film tabax yu rafet la ñuy gis oto yu rafet dëkk bu rafet mhm. léegi waroon nañoo dellu ci li leen may loolu nga xool ñoom niñ fonke mbay niñ fonke liggéey ndax ndax dinaa moo bi dawal yëf yi man ngi ca àll ba ma ngi ca tool ya waaye ñun nag lix bi la ñuy gis te dara xëyut sotti dara xëyut sotti dara xëyut sotti di mooy mooy Bokar Samba Dieye waaw waaw Baye Bokar Baye Bokar Baye Bokar dégg na projet bi dëgg la yal na yàlla jafal ba ci ba ci ba ci diine jéeg yooyot naa dégg Cheikh al Islam Aji Ibrahima Niass muy wax ni ñu bari borode yi dañ leen a fàbbi ndax bi ñu ñëw ci moom dañ koo fekk muy soli borode ñu yaakaar ne dafa xëy rek <laughs> euh, moom bàyyi soli borode <laughs> waaw te borode yi jiituwut <laughs> jeex na tàkk waaw am na am na leneen lu jiitu loolu macha hmm? allah hmm? allah akbar jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf Oustaz Aliou ci jàngat bu am solo boobu hmm. euh, Moussa Cissé ba léegi tege dese na ko beneen laaj euh, moom itam ca suuratu Saad Saad wala waaw Saad la aaya vingt-six vingt-six Euh, tombe fi sunu borom subhaanahu wa taala di wax ni yaa daawud hmm. inna jaalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaas bil xaq wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yadillunaka an sabilillah lahum hmm. azabun shadid wallaay ndeysaan bi ma bi ma nasu yowmal xisaab euh, xam nga daawuda hmm. moo moo suleymaan seeni mbir dafa ànd lënkaloo ci doom ak baay fiskay mm-hmm. mm-hmm. daawuda mënoon atte lool mm-hmm. mais nag day fen discours daawuda day fen discours waaw nit day wax discours rek mu fen la sunu <laughs> day daanu <laughs> sunu boroom bëgg loolu dañ ndax bu loolu dañut du atte lu baax dëgg lu ku mel noonu mënoo atte de <laughs> dégg benn wax rek daanub jël loolu loolu moo doonoon euh, gàkk gàkk bi nekkoon ci làmmiñam mooy discours da daan fan discours kat mm-hmm. Mm-hmm. waa ji ñëw rek def discours waaw mm-hmm. ne ko euh, inna haada axi lahu tisun wa tisuna naaja wali naaja waahida fa qaala ak fil niiha wa azdani fil xitaab qaala laqad dalamaka daay eh. eh. koy faar rek ne ko tooñ na la waaw ah, mu daanee rek mu attee suñu woon ne ko waaw nii ngay àttee. waaw àtte kay da ngay déglu ñaari lay. ay moo la tooñ de. mu ne ko laxad dalamaka. benn. Mm-hmm. bi su aali naajatika ilaa nii aaji. Mm-hmm. wa inna kathiran min al-xulataa. Mm-hmm. waaw ma ngay commentaire. waaw ko mu ne ko ñu bari ci nit ñi dañuy am sutur. xeet dañu am lu bari. di jël tuuti jàmbur di yokk ca loolu di ko jaxasi. loolu dafay bari ci dëkk bi. mais danaa ci def danaa danaa ci taxaw. dina la delloo si àq. <laughs> ko sunu borom ne ko yaa Daawuda. du <laughs> nii ndeysaan du nii. inna ja'alnaaka xalifatan fil ard. Mm-hmm. Allahu akbar. waaw. yow yaa war a atti nit ñi. Mm-hmm. kon nag faxkum bayna na bil xaq. Mm-hmm. tegal atti bi ci dëgg. del joxe droit de réponse. genn kàddu benn pàq du lay. ndax ñaari bu nit waxee. soo boolewut ñaari yëf yi. Mhm. doo dem. Mhm. gis nga ci tele ak rajo yi léeg-léeg nga gis télé boo xam ne bi bu nu joxee kàddu kii dañuy woo kële mu ñëw. Mhm. dëgg la. walla ñu woo la téléphone nga tontu. dëgg la. loolu mooy moo indi toisune bi. équilibre. léegi kële dañ ko laaj dara même su fekkee moo tooñ. dañ ko laaj. dañ ko laaj baaw waaw. vraiment droit de réponse ah. dëgg la de waaye nag fukkandiku ci wenn lay rek àtte moom. rek olof ay wax wenn lay pàq la. sunu war ne ko yaa Daawud. inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna naas bil xaq wala tatabil hawa bul topp bànneexu discours waaj bul topp bànneexu discours waaj fooy du la ko an sabilillah loolu da lay sànk ndeysaan inna lazina yadillu an sabilillah hmm. ñi nga xam ne dañoo sànku hmm. lahum adabun adabun shadid wallaay bi ma nasu yow bu ca bokk dégg nga yal nañ ci yàlla ko du ma ca bokk wallaay allahu akbar macha allah macha allah sukran ci laaj mbaam salak ndokkal ci maître baro waaw waaw ndeysaan oh, oh, waaw ndeysaan tam ku bëgg yii la ak teliko waaw waaw teliko <laughs> Téliko moom Souleymane Téliko ku dégg daara la. Mm. waaw macha allah. <laughs> macha allah kay ku mu alxuraan ji tuuti. liggéey mm. ci yooyu. Mm. Eh, da ngay wut ak nit dëgg la de. macha allah léeg-léeg jum ci ñoom am na ci ñoo xam ne wu. yëpp <laughs> dañuy teewlu téere bi. Ah, <laughs> macha allah ci de. waaw baax na trop kay. jërëjëf Moussa Ciss bëgg ñebe eh, xam naa tey saraaj am na solo. Mm-hmm. Oustaz sunu mbokk moo ci tegu Mbàkke muy docteur Alioune ñu ngi koy nuyu baax a baax mm-hmm. eh, moom docteur Alioune Gadiaga tey rafetlu dugam bu am solo boobu oustaz ni mu ko baaxoo defee jàng na aayaam jooju mm. euh, aaya ji oustaz xullan yu si banaa lan lay tekki waaw mooy mm. gëm leen ne mm. yàlla dugalul ci suñ kaw dunu dal allahu akbar allahu akbar hmm. lan yusibana illa ma kataba mm-hmm. lu yàlla bindul ci mu bindul ci musiba du agsi mm-hmm. mm-hmm. mooy suñu kilifa dëgg la dëgg la dëgg la waaw Mawlaana mooy suñu kilifa kon fa leetu wàkkilil mu'minun mhm. wala mutawakkilun waaw mutawakkilun wéeru leen ci moom mhm. est-ce que monsieur Kourane macha allah docteur moom ci suratu Kahfi la dem ak ñun mhm. nee na fa borom bi doon waxtaane mbirum zul xarnayni wa yasalunaka mm, wa yasalunaka an zul xarnayni xul saatlu aleykum minhu dhikra walaay ndeysaan inna makkanna lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli cheyin sababa eh, sas Mbàkke naam seex na xam nga yonent bi daa wax ne àjjuma jot nañ jàng sóotu kaafi waaw loolu la wax de <laughs> àjjuma ju mhm. nañ jàng sóotu mhm. mhm. bi sóotu kaafi nekkul fenn aqida bi ci nekk nekkul fenn ak ñeenti xisaam yi ñeenti xisaam yi xisab ñawoon ca tool ba xisab asaabul kaafi xisab iblis ak doomu ah xissa Moussa Khadir ak xissa bii nii di sax sab sul xarnayni est que waaw waaw mhm. te sul xarnayni Oustaz Alioune mhm. nekkutoon mag mhm. déedéet trente cinq ans yi ne nañ mat na ñeneen matut allahu akbar waaye ci wàllu politique ci pénc mi taxawaay bi mu taxaw bi suñu borom ne Eh, sa atlu qul sa atlu aleykum minhu dikra dikra wallaay dafa tàmbale ci inna makkanaa lahu fil ard mhm. <laughs> makkanaa lahu fil ardi waaw mooy daa déggum réewam mhm. ah. daa dégg réew ma moom daa déggum réewam est-ce que est-ce que lu am solo la mm, <laughs> dégg sam réew politicien bu déggutum réewam mhm. du du sotti dëgg la dëgg la am politicien day déggum réewam waaw am na solo mm-hmm. lu am solo dégg aada yi waaw dégg aada yi dégg xam-xam yi dëgg la dégg yi ñuy bañ dëgg la ñuy nangu dëgg dafa déggum réewam wallaay màkk naa loo fil ard muy benn wallaay ndeysaan wallaay wa aataana min kulli shay'in sababa mm. fu mu bëgg a dem wutal nañu ko lu fa dem mm-hmm. Mm-hmm. fu mu bëgg a dem wutal nañ ko lu wutal nañ ko lu fa man a dem ndeysaan bu fa saret di dem saret a ngi mm-hmm. bu fa welooy dem welo ngi bu fa scooter dem scooter bu fa 4x4 dem 4x4 ndeysaan loolu war a fi ne politiciens yi sëñ Mbàkke mm. ñuy xëccoo ci oto yi nga xam ne ñooy campagne ñu ciy xëccoo waaw waaw ku ci nekk gongorog oto lay wut. Mhm. waaw. oto yu bari de. bari ah, kon oto yooyu itam dug neen ci yëf yi. te seer bay bëgg a la. <laughs> ma ne kon looloo dug neen ci yëf yi. fi mu ne dug neen ci yëf yi. xarit tukki nag ñetti tukki. Mhm. maxariba samsi tukki na fa. waaw. mat matli asamsi tukki tukki na fa. est-ce ah est léegi nag daal di tukki beneen tukki ba nga bay na sàddey ni mhm. ñetti voyage yi bu ci nekk. defal na penc ma. Mhm. loo xam ni mënuñu koon a def. Mhm. te nag déglu na leen. ndeysaan déglu na leen. ci déglu na leen ci du du discours préparé. Mhm. Ah. waaw déglu na leen. te déglu leen ci discours préparé. dëgg la dëgg na ñu njëkk ñi dafa am lu leen naqari. imma an tuadiba. wa imma an taqda fihim xusna. wallaay wallaay li leen naqari mooy fii dañ dul sanctionné. waaw kenn du teg kenn ay daan. loolu leen métti ñoom laisser aller am na ñooñu xaw nañoo nuróog ñun tuuti imma an tuazib waaw waaw hmm. am na lu ñu nuróo léegi ñun imma an tuaziba waaw wa imma an tattaqisa fihim xusna xusna hmm. fii dañ dul sanctionné hmm. dañoo bëgg nag nga nga changé ñu loolu comme yow yaa yor réew mi ndeysaan ñuy sanctionné ku tooñ sanction yi mën naa nekk yow daal yaa xam waaw muy leen acca amma man dalama fa sawfa nuadibu wallaay bis naka tey commencé naa di sanctionné dëgg la oh wa amoon amana ko def lu baax. Hmm. wa amila saalihan bés naka tey commencé naa di récompense ñuy def lu baax. Hmm, hmm, est-ce que. ñu ko. est que wiiw si wiiw si xarna yi. dëgg la dëgg kon kuñ ci local yi ba ñëw ci dëkk boo xam ne localité boo xam ne kenn du sanctionné. waaw lii moo war a doon sa tontu. lii moo war a doon sa tontu waaw danaa ci taxaw. <laughs> mu jax tàkk. <laughs> waaw. dégg nga. ba mu dee mat la asam si. moom lam fa fekk. lam naj alhum duuniha sitra amuñu néeg. amuñuy kër. <laughs> problème mu dëkkuwaay la ñu am. logement <laughs> merci booboo am na fi côté yu am. ndakaaru gii ci la bokk xam na metti na seer na. waaw ay ci <laughs> waaw. campagne baa ngi dox Alioune Gadiaga. mu defal leen ko. waaw. troisième tukki et eh, dernier tukki bi nag. Mm-hmm. bay na sàdday ni. te mm-hmm. yaa jooju. waaw tey tey. waaw bay na sàdday bi mu ñëwee. Mm. Eh, wajade mu doon xaw man laa yaakaar ñun yëf xaw na xaw la. dëgg la dëgg la. sori guñ sori tax na. Mm-hmm. ñoom dégguñu. làkku réew ma. dëgg la ndeysaan. ay gulu gulu. Oh. ngi li gaaga ngi li ko sukkee. Oh. yooyu la ñuy làkkante waaw waaw. mais daañu ko ci wax lool. Mm-hmm. traducteur yi bu ñu ñëwee. dëgg la dinañ ko mën a ba mu xam ne lii la ñuy di wax. dëgg la te ñooñoot luñ sori sori ak luñ ñàkk xam li xew dañoo bo dañoo ay àq ci réew mi. très bien waaw c' est important. c' est important. Mm-hmm. c' dañoo dañoo incliné woo dañoo. jéeg mm-hmm. ñoom seen <laughs> ko wax. Mm. inna yaajuuj wa maajuuj hmm. mufsiduuna fil ardi wallaay mufsiduuna fil ardi chinois yeeg sapone yi ñu ngi bëgg a yàq suñu <laughs> ñoo neex <laughs> waa nga dëgg de ñoom moom problème mu commerce international bi lañ am. waaw commerce wala boo commerce extérieur bi. bunt yu ubbeeku yi tax na li ci biir dëkk bi mënatuñ koo jaay. léegi nag proposé ko. soble see ngi yàqu. waaw nangam nangam waaw. <laughs> ñu proposé ko ay TVA. Mhm. ay impôt ay cotisation mhm. fa hal naj'alu laka xarja. Mhm. ala an taj'ala baynana wa baynahum waaw. Oh. dañoo bëgg di cotiser. waaw teg ñu ay TVA teg ñu impôt teg ñu lépp. waaw ñu ñu fay nangoo fay. ndax nga defee nga am ci loo defaree barrage bi. Mm-hmm. ndeysaan mm-hmm. allahu akbar. te te te te alquran. nga déglu muy tontu. walaay xaala. maa mm. makkan nii fiihi rabbi xayr. parce que li ma sama borom jox defar na ko. allahu looloo daw yaram nag. oh li sama borom jox. Mm. defar na ko. Mm. laaju ma kenn TVA. Mm-hmm. Mm-hmm. laajuma kenn impôt. Mm-hmm. laajuma kenn ay cotisation mm-hmm. kees gi li fi nekk defar na ko. defar na ko defar na ko léegi. faa ay noonu bi xuwa rek loolu nag politicien bi da ko war a wut. waaw mooy fa ay noonu bi xuwa mooy lan mooy. jox leen ma seen doole ji. ma defar dëkk bi. dëgg la waaw loolu mooy loolu mooy déggal leen ma rek. dooleel dooleel leen ma waaw nit ñi laa soxla nit ñi. soo nit ñi dem leen ca tool ya. waaw ñëppay dem dëgg la. dëgg la ah dëgg la boo ne dem leen ca nangam ñu ñëppay dem dëgg la boo doon leen sax na jóg leen ñëpp a jóg dëgg la ci misaal tey bu doon ne président daa xëy ne na ku nekk jëmbat genn garab yow daal sa jëmm yow gannaaw yow la amalu garab ah. ñëpp jëmbat ko léegi ah. dëkk bi naat léegi dëkk waaw ñu ne kenn ku nekk sa mbalit na ko dajale bu sa buntu kër ba fa benn mbalit nekk ñu jëfe ko mbalit jaar sama kër ni ma jógal ma jóg waaw maanaam ñu déggal ko nga xamante ne du soxla loolu waaw fa aynu ni bi xuwa ajal baynakum wa baynahum radma est-ce que ñu ne ko pare nañu waaw waaw génn mu soirée yëngal ne ko pare nañu est-ce que est-ce que waaw est-ce que mu ne leen aatuni zubaral hadiidi hmm. <laughs> foral leen ma feeraay parce que moom kon liñ koy sant feeraay la ko nara a defaree. jeex na dem leen ngeen ànd seen bu sekk. waaw ngeen foral ma feeraay. <laughs> moo tax bi ma déggee feeraay ñu koy jaay ba mu am coow ma ne ci alxuraan xoolal feeraay rek. waaw ndekete feer dafa am imp kii noonu. dafa am solo. waaw feeraay. ah Tunis Boural mm-hmm. dëkk ba sëñ Mbàkke di for feer. waaw ndaxte nangul nañ ko. dëgg la dëgg la. kenn du sàcc feeru jàmbur. déedéet. canal yi kenn du ko sàcc la ca nekk. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. kenn du fekk poto bu taxaw nga jël. ya amul njariñ te na ca dëkk ba. moo tax mu tudd ko zubaral xadiit. ndeysaan te te. waaw ndeysaan. xam nga fekk nga teg sag weñ ci sa buntu kër. waaw mu jël ko jaay. waaw du zubaral xadiit déedéet du subaral xadiit de. subaral mm-hmm. xadiit mooy. mooy poñ poñoor yi ñu jàpp ne amatul njariñ mooy feer yu baaxul yi dammitu feer yi <laughs> très leen ko indi <laughs> waa nga dëgg de dammitu feer de bokkut ak ubbi loo xam ne ab kanaal la tëjoon dem jaay <laughs> dégg nga ndeysaan ba ñu ko foree ba mu bëri hmm. xattaay saa saaba bay na sa dafay ni waaw ndeysaan mu ne yéen mën ngeen a wàcc hmm. tëgg yi ñëw leen waaw yéen tam seen marché ñëw na waaw am fuxu waaw am fuxu luy ëpp yëf yi ba mu jànj ba tàkk waaw ci yëti seen loxo lañ koy teg hmm. nañ ko toggal feer bi daal nañ ko toggal ba mu nekk ndox foofu xam nga ñu defee appel d'offre tëgg yi ñëw daal di jël marché bi léegi ñu defal la ko ba mu baax hmm. léegi hmm. tey léegi léegi ñu na ca na ca xata xata isa jaaluhu naara ba feer bi ci boppam nekk sawara waaw est-ce que lii. Hmm. mu ne mu ne ko mu ne delloo na lépp sama borom. macha allah akbar allahu akbar laajam akbar macha na gudd mais njëriñ li kenn xamul mu toll. Hmm. parce que dafa dafa di discours bi. Hmm. da nga dimbali mbooleem kuy politique. tey campagne. dimbali itam askan wi su fekkee am nañu noppi dégg. ndeysaan lii. jar na dégluwaat ay yoon. waaw moo tax ñun tamit yàlla ko jàng chaque vendredi. dëgg la dëgg la yoon dëgg la sëñ Mbacke yaakaar naa ni. wallaay ndax ku falu ba jot ay yëf la ba noppi. Eh, li ko yàlla jox di ñu jàngal nam ko jeexale mm-hmm. doole ji mu amoon nga xam ne àdduna la yilif. te di ko te di gone te waaw ah gone la woon. waaw te di gone. mais yàlla yàgg naa kii boo nag booy jàmbaar lañ de. <laughs> yàlla du fal màggat te di gone xoolal di yont yàlla Souleymane rek. rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya lay ndeysaan maanaam nit yàlla yëpp bu ñu bëggee doxal lépp dañ koy delluwaat ci yàlla dëgg la mu jax tàkk ñun ñi nga xam ne ñooy ñooy doxal te lu lu baax ñu bàkkoo ko ngar daajoo ko mhm. yàlla du ci am cër yàlla daf day seetaan rek dëgg la yàlla baal dëgg la wallaay bari tabarakallah macha allah am na solo jërëjëf dese na ko yeneen laaj mhm. dese na ko yeneen laaj moom mu nee na imaamam ji ko doon jiite dafa toog ci ràkk bu njëkk mhm. te ràkk bu njëkk dañ caa war a taxaw mhm. nee na ba mu toogee ñu sàbbaal ko mu jóg moom daa jàppoon ne bu sëlmalee daa war a sujjóot baax da ndax daa yokk ab toogaay foofa imaam ji ne ko damaa jot a toog rek waaye toogaay bi waxuma ci dara maanaam damaa toog rek ñu sàbbaal ma ma jóg kon du ma ci sujjóot xam nga foofu ñaar la dafa am koy def jalsatul istiraaxa waaw waaw am ko ko dul def léegi nag imaam comme daa toog te daawu ko def dafa jamaj waaw du jalsatu istiraaxa jamaj la ci moom moom jamaj la ci moom bum bu mu ne dama koy toxal yóbbu ko fee eh, non non <laughs> la hmm. jamaj la hmm. waaw bu fekkoon dafa daal def jalsatu istiraaxa hmm. li benn rakk si gi toog jóg jóg taxaw kon ko def mu ñëw tey bëgg ko caa soppi non non duñ ko ko nangul d'accord kon daal kon daal bu fekkee imaam moom naka jekk bu daan julli daanu def jalsatul istiraaxa bu toogee daa jamuj daa bu toogee daa bu dee da ko daan def nag te ñi muy jiite comprendre uñ loolu ñu yàkkamti sàbbaal ko bu boobaa jamujut boobaa jamujut d'accord shukran ci laajam ba am sale bi imaam li ki ci topp mooy euh, sëñ Saliou Jaxate jërëjëf sëñ Saliou Jaxate sunu cousin boobu mhm. sëñ Jaxate kabe yéri indi na commentaire yaatu yaatu dëgg la dëgg la yal na yàlla ko te gërëm ko amiin amiin ñu bokk ci jàpp gi jàpp ci daara ji ñooñ daara ji amiin yal na yàlla barkeel amiin yaa rabbal alamin alhamdulilah mhm. moom day oustaz sëñ Saliou mi mhm. euh, li mu laaj mooy surtout kaw Kawsara euh, saar bi lépp ne na nga tënkal ko ko waaw buñ koy tënkal saar wi lépp mooy nan xàmmee aadaak sharia kawsar loolu lay jàngale ñu xàjjale aada ak sharia aada ak sharia dafa am kër yonent bi aleyhi salaatu wa salaam aada ak sharia daje fa benn bis aada ji mooy dëjub doomam ji sharia bi mooy julli gi gi aada ji mooy ju dëjub doomam ji tey la xale bi mu dese woon ci góor mm-hmm. tey la faatu tey la bisub waaw mu war a boole dëj ak julli ji waaw aada ak ibaada na mm-hmm. sunu borom ne ko jéggi fi dëj bi mm-hmm. te dem julli ji te dem julli ji mm-hmm. yombut nag aada ji yaa ko moom yaa say bokk julli gi maa ko moom ti bokkuma ko kenn loolu boo ko defoon ci sunu réew mi dañ àdduna bala ah, loolu tax kaw sara day waa ah, loolu lay jàngale tey bu doon bu doon tey suñu réew mi mm. xel xalaatu ngay julli ci day déedéet fa ngay nekk di jooyaka def yëf mu ne ko inna aataynaaka al kawsar li ma la jox moo ëpp li nga ñàkk tey ci mm-hmm. mm-hmm. li ma jël tey mm. jox naa lu ko ëpp dëgg la yàlla gore wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ah, li ma la jox li mu mu ëpp li ma jël dëgg la dëgg la li ma jël maa ko moom jeex na fasalli kon li rabbika mm-hmm. wan xar est-ce que moom nag relation bi muy am ak ay xaritam moo metti daal waaw ki nga ne maa la gënal ñëppit nga koy teg yu metti yooyu oustaz di ko dundloo contexte yu difficile moo koy moo koy nitteloo nag Alioune yàlla ku mu gaañ dàmp la mm-hmm. moo koy dëgëral mm-hmm. ku mu gaañ dàmp la mm-hmm. waaw laa dégg sax ahasiba naasu an yutraku an amal naa wa hum laa yuftanun yàlla góor gu mooñu doomat góor allahu akbar kon jafe-jafe yi léeg-léeg mooñ la ci nit ki demal léegi rek ci euh, mbokk mi jum muudu mbàkk jum waaw waaw na mi waaw fekk nañuy defaree or bi dëgg la bala ko bala ko jongamaa takk dëgg la dégg naa or li muy daj. sa garabu biit boo ko boo boo fekkoon boo ko téere bi jàppee. waaw da ko dur ay chiso ba nga naan muy yéen. dëgg la de yow sax xam nga ca rajo Sëñ Mbàkke. Mm-hmm. waaw mu noppi ca teg ko ci machine bi di ko jam ay rab. ay puso moom kay boo ko fekkee ñu koy dagg sax ba mutu nga ko yaa ngi yàq sama ndimbal. waaw <laughs> di ko duuri puso ba yëre bi di yuux. dëgg mu ne ko noppeeku ma ceew. tàngal feroo ne ko ca daas. Oh. doon na la am sal te lim ci jublu lépp mooy bu paree nga man koo xool mu nit ñi mën a bëgg noonu la yàlla ay def góor noonu lay def nit sax laa bëgg a wax mm-hmm. noonu lay defub jullit muy am ay jafe-jafe ay problème yu metti waaye ndekete ak defaru la boo génnee defaru mm-hmm. wallaay mm-hmm. ahasiba annaasu an yutraku an yutraku ko yaqulu amanna wa hum laa yuftanun wala xad fatanna lazina min qablihim mhm. ah, fa la yaalamanna law lazina sadaqu wala yaalamanna alkazibin wallaay ndeysaan est-ce que ku weddi laajal xayrul anbiya yi jaxtaan <laughs> sukran ci laaj maam sala bi sëñ jaxala <laughs> sukran sëñ bak sukran imaam oustaz jërëjëf euh, jërëjëf Saliou Jaxate imaam li moom amul beneen laaj teg na ci beneen waaw teg na ci ki am ku mu faatule te dub julit mhm. waaw ki faatule te dub julit lu man di bokk dafa am fu mu yem ndax kiy dund si dub jullit mu amala ngeen di jëflante mhm. bu faatoo aqida mooy taxaw dëgg la dëgg la dafa am muamala ak aqida mhm. muamala gi mooy bu xiifee nga am lu muy lekk jox ko mhm. waaw bu amee ngénte ñëwal ndokkeel ko waaye comme dafa faatu sañoo sang sañoo sang sañoo rob sañoo bokk ca julli ga sañoo bokk ca ca denc ga dëgg la la nga sañ mooy ak lu ma la mën a jege ñu dencee ba ñëw nga ne ñëw ne sigil ndigaale ci mhm. dem ñibbi est-ce que est-ce que wa shukran ci laaj ba am solo mhm. torkal la ma allah macha allah mhm. Saaliw Jaxate noppi nag ki ci topp mooy ma Mbooj Njang Ba Mbooj ma Oustaz ci wàllu jëw lay laaj nee na dafa bëgg nga xam nga wax ko jëw fan la tàmbulee ndax léeg-léeg nit ñi jàmmante ne ana diw nga ne ma nga fa de daal cay teg ay baat di nangam nangam wala ngeen waxtaan tudd ko wala yooyu muy laaj ba xam loolu ci jëw la bokk wala déet waaw ci jëw la bokk biñ ci maye bu mel nii la tesewoo ak jenn waaye léegi nga ne aka ah kay lum sol garaam bu bu weex jëwoo jëwoo ok am na ku jël sama nàngam ca marché ba démb mm-hmm. ah nu mu toll dafa xaw a njool mm-hmm. jëwoo waaye ana diw ma nga fa moom sax de wàccee na jabar ja yaa ngay jiw laa ilaha illallah moom fu ti tibb daa kawe <laughs> kii kay jëwantuwutu sax information du taay la joxe bu mag <laughs> laa yëgoo ne wàcc na jabar ci <laughs> ma ngay jóg allahu akbar boo ëpp na moom yi loolu li koy def ndeysaan yàlla ñu yàlla dimbale parce que ci dañoo bari aajo lool waaw <laughs> ah, bari aajo laa biir ndeysaan ci net li te man a waxtaan nee na fay impo dafa dégg bari ki démb ku doon waxtaan ci wàllu impôt yooyu ni ñu baree bari ci réew mi daal dañoo xaw a sàggane fayum impo mhm. muy laaj ba xam ñàkk fay impôt nit ki ci am bàkkaar wala déet waaw bàkkaaru société la bàkkaaru société waaw bàkkaaru société la mhm. zan bu zan bu ijtimaa la mhm. da am ñoo bokkal société bi mhm. ñuy def la ñuy def teew defoo ko bàkkaaru société ngay am dëgg la léegi nag bàkkaaru société suñu borom bàyyi ba yema xam muy peese say jëf fii la koy fayoo dëgg la fii la koy fayoo de waaw parce que yàgg nit ñoo ko bokk dëgg la parce que accident yu bari yi bàkkaaru société la parce que fi nga war a jaar boo fa jaaree ni nga war a dawale boo ko dawalee mën ngaa dal dal bañ a dal ci kenn kenn bañ a dal ci yow. la suñ dalee ci yow ci ñàkk teyeef nag su boobaa amuloo problème. Mm-hmm. oto yu xënt yi ñu dawal ci dëkk bi. Mm. bàkkaaru société la. Mm. waaw est yàlla xam na ko. camion yu mag gàtta mag ñor xom. nga xam ne fu ñu ne ko comme rek mu wow koŋ. Mm-hmm. loolu bàkkaaru société la. Mm-hmm. allahu akbar wa shukran. est yàlla na yàlla dimbali amiin yaa rabbal alamin <laughs> loolu mooy laaju suñu Yatma Mbodj ñu ngi koy jaajëfal ki ci topp imaam lii mooy Dame Gueye Dame Gueye tëggal tàppe oustaz moom moo ci tegu laajam bi ma ngi ko yóbbu fële ci alquran ci sootu Kahfi ba tey mm-hmm. Mm-hmm. ay 104 tombe fi suñu borom subhaanahu wa taala di waxee ne inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzulan xaalidina fiha laa yabquuna anha xiwaala waaw wallaahi mm-hmm. boobu de suñu borom mi ngi jeexal këf xale yu jàmbaare yooyu ndeysaan ak lam leen defal ndeysaan muy jeexal nag daan ne hmm. inna lazina amanu wa amilu saalihaati hmm. kaana lahum ci hmm. ñu nekkee ci àdduna gëm yàlla def lu baax te duñ ci bëgg fayug tey wa amilu saalihaati mooy def lu baax te doo ci bëgg fayug tey dëgg la ñooñu mm-hmm. lahum jannatul firdawsi nuzula allahu akbar bu ñu ne cëpp aljana rek àllaaxir mm-hmm. rek ñu ne firdaws a nga ne mm-hmm. nuzul mooy bi ngay door aksi rek ñu ne la ma nga ne mooy sa wàccuwaay mooy sa wàccuwaay dalal jàmm xaalidina fiha fa la ñuy dëkk laa yabxoona an haahi wala duñ bëgg a toxu te duñ bëgg a toxu xam nga bëri na koo xam ne fi mu dëkk nii sëñ Mbàkke mm. Mm. man fi ma dë fi ma dëkk nii tey mm. buñ ma mayoon ak kër R plus 2 waaw du ma fa yendu déedéet da ngay tux foofaa may gënal dëgg la waaw wax dëgg yàlla de mm-hmm. am de waaw fi nga nekk nii baax nga xam ne nga xam ne maanaam daal ñàkk pexe la ak ay yëfa la fa ba waaye ku sañoon doo fa yendu suñu borom ne nee na fi muy dugal gars yi ñoom waaw su ñu bëgg a tuxu waaw laa yabqoon an xaayi wala mm-hmm. duñ fa dëkk malgré duñ fa dëkk malgré waaw lu am solo la parce que doomu aadama léeg-léeg nga am mbubb ku la may mel mbubb nga summi mii dëgg la dëgg la wallaay wallaay nga am oto mm-hmm. bii dëgg la maanaam bii da nga koo yorandi rek ndax waaye boo sañoon tàqali koog moom tey mm-hmm. kër yi tam noonu la mm-hmm. léegi nag bu dee yomal xiyaam bu waa ji accès bañ ko joxee kër laa yabuuna an xaaxi wala du bëgg ndax kër yooyu du sàppi ndax couleur yi day change chaque jour amul changer peint rek couleur couleur kër gi. Hmm. mooy changé boppam. parce que laa ilaha illallah fëte yi neex ba lay walbati. oh gis oh. laa ilaha illallah. Ah, ngi bëgg a lekk kenn du dugg hmm. li ngay lekk ñëw toll sa gémmiñ na la kul nii lekk añema. Hmm. allah añema. léegi nag yaa ci des. vraiment yi ñu tuddee fii ak noos daal. dug noos waaw daanaka ku ko mënta am ci voix bu noppale bu da bu dagan. bay bon nga muñ ko taxaar yële rek dug noos dug noos de ah. dug noos. parce que nit day dem hôtel ne day noppalu ji far sonne fa <laughs> maanaam. dug noos waaw mu ne nag. li yàlla bëgg wax lépp bu bu ko waxoon du ngeen moo ko la alxuraan dëgg la xol law kaana baxru li ma bëgg a wax mm-hmm. Mm-hmm. su ma waxoon lépp alxuraan kenn du ko mokkal mm-hmm. kon nooy def mu ne damay tànn li defar jikko jox leen ko ngeen mokkal ko daal di yonent bi defal def woo de euh, presse wala boog wooteel point de presse yonent bi ne kaa leen wuyu ma est mu ne ko acca waxal ko sa bopp xul neel innama ana basirun mithlukum mbindeef naa li yéen mhm. Aminata sama yaay Ablaye sama papa mhm. Xadija mooy sama aawa mhm. di yooyu sama séet waaw mislukum comme yéen rek léegi nag yuuxaa ilayya li li ma wóotaleeg yéen mooy dañ may wax yu waaw kuñ ma déeye ma def yàlla may diini ma defal na nga wala waxal na nga innamaa ilaahukum ilaahun waahid ce que ñaari yàlla nekku fi lu ñett du ñeent kenn képp la ilaahun waahid allahu akbar cey mm-hmm. jooju wax. ku bëgg a dajeeg moom na bàyyi xel ñaar. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Mbàkke. muy muy muy muy muy surutu xabooli la amal. maanaam yi tax jëfi ki nangu. jeex na. ñaar. fa man kaana yarjuu liqaa'a rabbihi. falyamal amalan saalihan. xanaa ben waaw wala yushrik bi ibaadati rabbihi ahadan muy ñaar. est-ce que est allahu akbar allahu akbar shukran ci laajam ba am allahu akbar waaw macha allah macha allah ku bëgg yàlla nangul la dafa am ñaari yëf yoo xam ne mënu cee ñàkk mënu cee ñàkk waaw <laughs> waaw waxtu wa jeex na muy ban ak ban <laughs> waaw mooy hmm. amal saalix hmm. mooy tawhid hmm. ndeysaan wala wala yusrik bi ibaadati rabbi ahada ma ngoog est-ce que jërëjëf est-ce que mbàkk ñu jëkkante ñaar waaw waaw foofu am na lu fi ne de bu bari sax lu bari nga fa waaw xanaa ñu ñëwaat ñu ñëwaat incha allah incha allah desal nga benn laaj bi sax mu ni suratul mulki dafa dégg benn bis ah, nga ni nga ni nga ni bandi du ko man suratul mun dafa mos dégg wax loolu waaw déedéet dama ne hmm. yonent bi nee na bu sañoon. xeetam yi ñëpp mokkal sooratul ko. sooratul al mulk mm, waaw mu ne léegi bu ko bu ko bàndi mokkalee nag maanaam ndax boobaa da ah, koy jariñ wala déet. waaw déet problème bi kay mooy ndax bandi dana ko mokkal. ok ah, <laughs> nan la ko nit di mokkale ba noppi ñu bëgg koo jàppee bandi. waaw ah, jeex na <laughs> parce que loolu mooy. laaj laaj boo xam ne bii. taq mm-hmm. taqdir la su nangam amoon nag. Mm-hmm. nañ bàyyi ba am ñu laaj ma ko. macha vraiment. Ibrahima Wade comme ñun mënuñoo génnee bandi beeg yooyu <laughs> Wadeen Gawac la dem ak ñun oustaz aaya mm-hmm. 10 euh, la wax jàpp 11 ak yu demee noonu mm-hmm. euh, bu ma ko yéegalee waaw aaya 10 mooy tolloog fa borom bi di waxee naan yaa ayyuha alladina amanu mm-hmm. hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alim tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun laaju mbokk ma bëggoon sa sëñ sëñ sa sàmbay sëñ sàmbay waaw daana ko jàng lu bari waaw ndeysaan parce que fii waaw yàlla defee mooñ lu am solo mm-hmm. mm. hal adulukum ala tijara mm-hmm. mm. yéen commerçant yi mm. yéen jullit yi yéen ba ngeen moo jox leen commerce tijaara mm-hmm. te commerce moomu euh, bénéfice bi mooy tunjiiku min asaabil alim loolu kay ñun ñëpp ko bëgg wax dëgg yàlla bénéfice buy tax mucc ci mbugalum bàmmeel ah. mucc ci mbugal mu metti ma hmm. bank leen seen baaraam ñu ne billaay ba ca jiitu mooy gëm yàlla gëm yàlla wa rasuulihi te gëm muhammad est-ce que alayhi salaam xanaa ñaar ñaar hmm. wati jaayiduna fi sabili tey kër kër yi nag hmm. ci yoonu yàlla waaw kër kër yi bu leen nopp lu guddi bu leen nopp lu bëccëg dëgg la dëgg la dëgg la watu jaahidoon fi sabilillahi watu jaahidoon fi sabilillahi waaw mooy kër nopp lu guddi bu leen nopp lu bëccëg di def effort ci diine hmm. hmm. Hmm. na seen alal di dugg ci diine ji waaw waaw wa anfusukum bu ko seen bakkan fekk ak seenu yaram dëgg la maanaam alal dugg ci diine ji mooy wooteeb lislaam liggéeyu lislaam nga jël def ca dee ca def sa alal waaw bu la ci kenn man zalikum xayrun lakum in kuntum taalamun macha allah commerce bi moo gën ci commerce yi su ngeen xamoon wallaay ndeysaan wallaay wallaay barkalla macha allah macha allah. macha allah benn jërëjëf. benn laaj bi moo ci des Mbacke. ayca mën nga koo mëmbasal. waaw mbokk nag dafa lépp turam. Mm-hmm. muy daal du sas wàllu xam-xam ak li ngay jàngal ne mu leere mm-hmm. ce que équipe bu wax sa xalaat yii. Mm-hmm. doo leen xaw a dimbali tuuti. ndax ni ñuy waxee wax sa daal mel ne. Euh, règlement de compte ak ay ay ay mais euh, ah kay waaye waaye moom li mu wax am na solo. waaye sëñ Mbacke. bi nu mu tudd. wax sa xalaat. wax sa xalaat waaw man kay li ma jaaxal mooy li mu nekk benn équipe rek nga xam ne boo taalee benn équipe boobu ñooy tegaloo ba mu jeex ci xalaat yëpp ci semaine bépp ci yëpp rek ñu am ci ay xalaat waaye wax sa xalaat la tudd daal jeex na <laughs> wax sa xalaat. ñoo ñoo ñëw wax si seen i xalaat. Hmm. jeex na te ku ne ni ni ni xalaatam toll. Mhm. loolu dong la mën wax na dëgg la de allahu akbar ku ko xam loo wax danga ko seetaan. Hmm. loolu ku ne ni nga toll ngay waxee. Hmm. waaw oh, oh. oustaz ngir ci li wax nii xam naa <laughs> léegi soo leen soo leen dajaloon bëgg wax ak ñoom lay wax. dara bu leen wax seen xalaat. <laughs> te te yow bi nga koy wax say xalaat nga leen di wax. ok concept bi concept bi moom ku wax sa xalaat la moom. no comment. waaye leen waxoon noonu wax sa naqar <laughs> ndax bu ñu ko xaw tuddee wax sa naqar naqar doo ci man ba tey naqar yi xalaat la <laughs> leen naqar yi moom ngay xalaat di ko wax rek mbokk yi 46 jot ma bu ma saan jot di ñëkkati jataay bi saalin looy indi suba tigee maa ngi ci melokaanu sang bi alayhi salaatu salaam na mu meloon ak na mu rafete woon ak na mu taaru na ba si sa maam ji baax ji si dax wala irninu irninul baraya wallaay ndeysaan voilà tool ak net bu eh, eh, imaam bari na te ngay incha allah bu yàlla muy bëgg a woy lu ne mu bëgg koo def bu ci woyante de daaj yu neex lay daaj léegi ëpp naa def naa ay écho kay. Mm-hmm. <laughs> sponsorisé ma. Mm-hmm. <laughs> bu guddee naa ànd ak amit naa ànd ak imam Mor Seck allah <laughs> ci alminbar alminbar Oustaz Mbacke looy jërëjëf boo noppee ci tafsir bi dinaa ànd ak waa daara ji ci xamtu incha allah man maa ngi ci sama saar bi sootul xujuraat mm-hmm. ak ah, sootul daariyaat ay cinquante maa ci fa firu ilallah ba léegi ba léegi maa ngi toll ci al yaqin tey waaw macha allah mi ngi dox de Mm-hmm. alxam baax na lool gaa yaa ngi koy jariñoo ndeysaan merci waaw ñu ngi koy consommer bu baax kon nag lu ci jàpp suñu borom la lu ci dumam ñun ñi yàlla naa defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara amin wasalaamu aleykum wa wa barakaatu